mbokk ba léegi rek ñu ngi àndandoo ak yéen en direct quartier euh, général ñu ngi leen di ñaanal guddi gi neex euh, ci euh, télévision Futur Média àggali waxtaan wi ak ki nga xam ne ni mooy monsieur le ministre merci encore ci teewaay bi ci jotaay bi Seyda dañu lay bàyyi ndax ponk bu am solo bëgg nga ko indi ak monsieur le ministre. waaw jërëjëf Pape Cheikh alhamdulilah rabil alamin mhm. euh, xam naa sànq rek Basel mu ngi commencé ci félicité ministre bi nga koy kii ah kay. Mhm. parce que waaw góor euh, day yokk jéego. Mhm. te wax dëgg yàlla man dafa am loo xam ne dañ ko dund ak moom. Mhm. ci euh, daara moderne yi bi nga xamee ne ñu ngi ciy liggéey. Mhm. ñu nekk ci commission yi di liggéey mu nekkoon lu jafe lool. pour projet loi bi nga xam ne. dañ ko defoon ak yi nga xam ne tabax nañ ko rek pour mu njëriñ daara yi. mais mu jafe woon lool mais mu am ci compréhension boo xam ne. nangoo ñoo déglu nangoo lu ñu lu sëriñu daara yi wax rek mu annulé fekk si leen. Mhm. ba pare euh, joxoon ñu exemple bu bu bu boo xam ne man daf ma marqué. Mhm. wane ne man mii di ministre bi. Mhm. sama ay doom ñu nga ca daara ja. dëgg la te buñ ko contrôler lu dëggu la. ñaareel bi mu ne du ma diggee mukk lu ma mënul mu am ci benn cas sociale boo xam ne ci élèves yi nga xam ne étudiants yi génnoon euh, école normale. ma wax ko ci benn cas. boo xam ne. kooku dafa waroon la lendemain mu ne ma ñii dinaa leen recruter mu recruter leen te wax fi mu mu mu dandu daf fi yomb kon nag nit bu waxee dara euh, jëmmal ko loolu dañ koy dañ koy saluer di ko wax ne ko vraiment jërëjëf man loolu moom euh, dund naa ko ak moom ndax man nag damaa yàgg ministère ndax man bi ma amee 17 ans laa dugg enseignement kon ku yàgg ci ministre yu bëri fi lañ ma fekk d'ailleurs ñun de ñun ndax Sénégal moom xam nañ ne comme niñ ko commencé. ñun ñu nekk ci daara ji ñun ku ma am ndey la ak ku ma amul ndey. Mm-hmm. gis nga daara ji ñu wane nii léegi aji binta caw a ngi nii. Mm-hmm. jigéen la boo xam ne presque daaraam bi mille élèves ñoo fa nekk 1000. cent léegi. Mm-hmm. parce que lim bi sax xëy na gis nga ministre sax moo ma gën a xam kii bi. man mm-hmm. tellement ko xol laa siy demee. Mm-hmm. mu ngook mu ngook ngoog 1500 élèves ñaata ñoo fa mokkal te ay xale yu jigéen yi parce que année bi ñuy xeex. esco escolarisation des filles. polarisation des filles waaw voilà xam nga man sama làmmiñ bi moom dafa takk mu ngoog euh, boobu lañu lañu jël xeex lii mais euh, kii Pape Cheikh. monsieur le ministre. xam naa ne macha allahu taala euh, PS la génne formation sengoor la. waaw <laughs> xam naa ne suñu ni muy tontoo. Uh-huh. dafa nekk ministère boo xam ne daf ko maîtriser. Uh-huh. ba pare yi tamit mu mu mu mu gëstu ci. Uh-huh. te itam mu nekk liggéey bi mu bëgg. di ko liggéey mais daara yi ñun dañoo nekk Sénégal. suñu papa yi di fay impôt. ñu nekk kumba am ndey ak kumba amul ndey ndax kumba am ndey ak kumba amul ndey mooy ñii tabaxal nañ leen ay école wutal leen ay jàngalekat di leen solo lépp ñuy xëy di dem di jàngi di toog ci table banc di wàcc am seeni fourniture am yëpp ñun ñu ñu teg ñu de côté peut-être euh, wax na léegi ci mbirum euh, la laïcité ak yooyu mais loolu du lay euh, bi ci des mooy monsieur le ministre ngeen xeex loolu parce que man jàng naa ba am bac. Thiès laa jànge école Ousmane Ngom. foofu la mbaaroon. man ba bi may am bac ci ci laa doon jàng. jànge ba bi may am bac si table ba bu gudd nii ba ba yooyu ñuy def doon teg ci sabar yi. ñi ma xam naa ñi ma bokkaloon ci jamaatu Ibadu Rahman ñu ngi may dégg. Mhm. ci lañu ñu mus du ñu wéeru. ci la jàng ñi am seeni bac ñi raw si réew mi. Mhm. ci côté diine bi. génn dem ñi dem Égypte ñi dem Maroc ñi dem feneen ak feneen mhm. ba ñu indi ji diplom yooyu macha allahu taala ku Oustaz Barham Diop mhm. mais Mohamed cinq yàlla na ko yàlla yërëm ak roi Hassan II da toog ci suuf Oustaz Barham Diop toog ci benn fauteuil tiim ko ak doomam jii tey Mohamed mhm. di leen jox durusul Hassaniye te ci daara la génne mhm. kon daara Sénégal li fi génne alhamdulilahi rabbil alamina mhm. ba monsieur le ministre gis nga tey lii ñëw fii démb eh, li fi taxawoon léegi macha allahu taala di mu Mouhamadou Moujtaba def ngeen lu nekk pour am coupe d'Afrique mu tëleen mhm. ngeen def lu nekk pour ku am coupe du monde mu tëleen yàlla indi na coupe du monde boo xam ne ci alquranul karim la loolu nag macha allah taala dang nga ciy sant yàlla parce que tombe waral ay gaf mu nekk ñun ñi Pape Cheikh bi ñuy jàngale suñu ñi jëkkoon a jàng ci enseignement arabe bi ñuy recruter xam nga lu ñu doon fay seize mille seize mille par mois seize mille par mois waaw xam nga nan lañ doon jàngalee boo dee jàngalee dañu naan la yow maître d'arabe bi da ngay xaar ba dix-sept heures yéen ñi ñëpp defe naa jaar ngeen ci ah, suñu maître arabe bi waaw dix-sept heures ngeen doon ñëw lañu doon ñëw dugg dix-huit heures dix-sept koy jàngal ba pare nga dolli ci dañuy laaj xale yi kan moo bëgg a jàng ñu naan yaa Seyda man oustaz oustaz ñii jaar ci fenêtre bi ñii jaar ci bunt bi daw wala mercredi matin kenn du ñëw yàlla doxal na tey si même sax nag avant seen régime bi régime mu depuis président Abdou Diouf ñu nekk ci syndicat yi di xeex di xeex ba yàlla may ñu ñu toog ba ne tey enseignant arabe ak bu français même mhm. diplôme boo indi ci biir rek dina ci indi président Macky tey ñu ñëw ñu ko ci sant nag ndax dem nañu tey ba Pape Cheikh boo am tey ci ci kii même ENAM gii boo amee sa diplôme arabe mun nga faa dugg ah, ñu génne euh, brevet ak bac yoo xam ne tey boo jàngee ñun bi ñu jàngee ba pare bi ñu demee université dañoo wax ñu dem EFI pour jàngaat français un an wala deux ans. Mhm. pour mën a intégrer parce que même département arab pour nga jàngoon fa da nga français nga doon def matière yi nga xam ne ci arabe nga ko jàngoon. kon néewaloon nañu doole enseignement arabe waaye alhamdulilahi rabbil alamina. Mhm. Euh, ministre defe naa yow laay jox foofu. Mhm. nga wax ñu yan jéego ngeen ci toll. parce que ñun nag ñun ñooy ñi nga xam ne fruit bi nga xam ne ñun duñu grève. ña nga gis ñu toj kaar njàng ndongo daara bokku ca ña nga gis parce que ñun gëmewuñu li ñu am ndax koo xam ne yow jàng nga ba am bac mosoo am lu dul mbaar waxuma jaan waxuma jiit waxuma jànkalaar boo boo boo boo jàngee amoo euh, amoo courant matt lañ lay tegal taalal la ko kooku suñu dundee tey ba mu daara moderne ñëw defe naa dañ koy saluer bu baax téye ko ak suñu fukki loxoog ñaar ndax man mii kat oustaz euh, Pape Cheikh man nee naa monsieur le ministre bureau man daara ambulant laa yor <laughs> sama daara ambulant jooju yóbbu naa ko itali waa Italie ngi may dégg mhm. ca Vicenza ca Novara ca euh, yeneen dëkk yóbbu naa ko Allemagne daara ambila boobu yóbbu naa ko Norvège dem naa États-Unis barki dee moo Njaay ak Adja Degen Chimère yàlla ko yàlla yërëm euh, fala ma bàyyi ca Dallas fañ doon joué Dallas foofu ubbi naa fa daara boo xam ne daara embilan bii la macha li ñu wax itam si ñi nga xam ne yóbbu nañu indi nañu raaye fii man ak Mimi Touré mii nekk première ministre mu may dégg seede la ci dem naa benn conférence boo xam ne ñu ngi ko doon def Nations Unies ci téeméeri nit ñi raw ci àdduna bi man ca laa bokk maa ngi ca foto ba. Mhm. te ci daara laa génne. Mhm. décoré nañ ma Iran indi woon naa kii bi yóbbu naa ko ba bureau yu sunu. Mhm, gis nañ ko gis nañ ko après Sénégal gi. Euh, kii nañu kon ñun tamit ñun ñu nekk si daara yi alhamdulilah rabbil alamina. Euh, wër nañu àdduna bi. te ba tey ñu ngi continuer di wër àdduna conférence yi nga waxoon sànq nga ciy joxe ay exemple ñun fii TFM Oustaz Pape Anne bërki démb la jóge itali ak France. ñun ñooy bañ rek toog mais suñuy contrat bitim réew te ñoo ñuy jox billet jox ñu yëpp te ay tubaab yu weex tàll la ñuy tuubal. Mhm. di liggéey te le 16 nag invité naa la nga ñëw fekk ñu fii grande mosquée. Mhm. boo ñëwee di nga xam ñu lan la ñuy liggéey ci mbirum dara tàccu leen loolu. macha allah macha allah ah. monsieur le ministre looy wax ci euh, modernisation daara yi parce que am nay jamono coow li bëri lool ndoy baan euh, mën nga dem ci ponk le euh, parce que defe naa borom xam yu bëri ci ay daara la ñu jógee nag. waaw waaw ñu koy baax ci ci teew bi mhm. modernisation des daara bi indi woon na fi coow lu lu rëy rëy ñu gis ni ñoom xama sëriñu daara yi dañ cee àndul ñi ànd nañ ci mhm. coow li bari après ñoom ñu retiré wu mhm. ñu bëgg leen a laaj ñoom fan leen toll parce que am na ay euh, daara moderne yu bari yoo xam ni tabax nañ ko ci àll bi mais dafa tëjee ubbiwul am na sama dëkk am na yeneen di dëkk may xaar ma lay laaj daara yu moderne yooyu lan ngeen ciy xaar pour ubbi ko am na beneen question bu sax buy waa da ñëw après après soo tontoo ci bi ah, léegi loolu lu ci mbirum daara yi parce que dafa nekk dañoo nekk dëkk boo xam ne bii dëkku ngëm la. Mhm. mu am ñoo xam ne ñii même ñi dem école xëy na balaa ñu dem école seen waajur yi dañ leen yóbbu daara. Mhm. wala ci biir école bi tamit dañuy dem yenn saa yi samedi ak dimanche ak yeneen jours yi dem daara donc lu am solo la. Mhm. pour ñu wax ko. ñi nga xam ne ma di rafetlu aussi Adja euh, Fatou Bintou li nga xam ne moom la fi wax. parce que mbir yooyu ngay wax bi coow li bare am na benn daje ñaari daje yu ma oote sama bureau pour di waxtaan ak nit ñi moom ci daje yooyu mi ngi ci teewoon. Mm-hmm. parce que bi ñu njëkkee yëkkati projet de loi sur les daara. Mm-hmm. dafa indi coow lu bari ñàkk a déggoo. ah dem nañu sax ba ne ministre bi gouvernement bi ni colonisateurs yi doon xeexee daara yi noonu la ñuy xeexee daara yi. Mhm. méngale charte bi ak charte bi nga xam ne moom la fédéral bu bëggoon a jël. Uh-huh. lu nekk. Uh-huh. mais ma ne xam naa ne ñooñu comme ay ñu jànge ci daara lañu ay borom xam-xam lañu. Mm-hmm. xëj na ñàkk dégg-dégg rek moo ñu boole. Mm-hmm. ma oo leen bi ma leen oolee ñoom ñëpp ma ne leen comme lu ñu bind la. lu ñu bind la ne article un lii lañ ci bind. article deux lii lañ ci bind article trois. xanaa kay yomb na. lu ñu bind da ngay wax ne lii nañ ko ci dindi baaxul nga teg ko ci xam-xam ne lii moo tax ñu war koo dindi. lii war nañ ko ci yokk wala lii nañ ko ci yokk. wala lii nañ ko ci yokk wala lii nañ ko changé nii. ma jël projet de loi bi jébbal leen ko. ne leen comme yéen ñun gouvernement bi suñu toogee pour yéen yéen a tax ñuy liggéey. projet de loi bi defuñu ko pour suñu bopp. pour yéen la am na ay waxtaan yu ko jumboon jébbal nañ leen ko. def leen ci daje yoo leen neex soo leen bëggee daje yooyu ñu dimbali leen ci alal bi ngeen koy defee ngeen wax ñu lan lañ ci war a changé mu am ñaari at famille religieuse yu bari yónni seen xalaat seeni i observation fédération bi jël tamit yónni seen joxe seen xalaat ñeneen joxe seen xalaat bi ñu joxee seen xalaat ñu def ci ñaari atelier décembre bii passé ñu ñu d'accord am consensus ci projet de loi portant statut des daara décembre bii passé. Mhm. ñu def benn atelier sali ma dem tëj ko ñoom ñëpp ñu jox leen parole. Mhm. ñu ne projet de loi bi d'accord nañ ci. Mhm. te uutewul lu bari ak projet de loi bi ñu njëkkoon a def. mais loolu li muy wane rek mooy que ne am na ay réformes yoo xam ne yi dafay nekk ay réformes yu touché société bi. parce que loo xam ne lii depuis ay siècle mi ngi fii ay daara. soo ko bëggee réformer il faut nga déglu nit ñi. ñu jël temps déglu leen pendant deux ans ñu bàyyi leen ñuy waxtaan seen biir su ñu ñëwee ñu ne lii bëgg na ñu def ko ñu ne leen lii toog nga def ko man ma teg ci seen kanam nag parce que Babacar sàmb xam nga ko ah, mm-hmm. daara la génne mm-hmm. dem jàng Soudan ci université mm-hmm. génn nekk inspecteur arabe mën a wax ak ñoom ñu wax ci seen biir ba ñu d'accord ci bi ñu d'accord ci projet de loi bi ñoom ci seen bopp association islamique yëpp association de ñoo dañ ñoom dootul projet gouvernement bi ñoom ñoo jël projet bi dem jébbal ko président de la République Macky mhm. ba nga xam ne jàpp nañu le 15 juin bi pour def manifestation pour ñoom ñu jël projet bi jëbbal ko président de la République mhm. la sànq wax nga daara yi dafa mel ni kumba am ndey ak kumba amul ndey mhm. mais xam nga li tax loolu mu amoon mooy lii amagul woon projet de loi bi xam nga ministère de l'éducation nationale sañ-sañ bi mu yor pour doxal njàng mi ji muy dugal ci njàng mi du alalu ministre bi du alalu président mm-hmm. alalu askan wi la mm-hmm. alalu askan wi fi nga koy dugal mm-hmm. il faut nga wax sart bi bi tax nga dugal ko fa donc loi boobu su amul woon du mën a may euh, nguur gi fu muy sukkandiku pour def intervention ci daara parce que tey école privée yi ngay gis nguur gi di leen jox subvention subvention bi suñ ko voté assemblée nationale dañuy wax ne niñ koy tasaaree ci seen biir nii la dafa am pàcc boo xam ne bii dañ koy dañ koy jox limu ndongo daara yi école privée bi am. Hmm? pàcc boo xam ne bii dañ koy jox limu li nga am ci jàngalekat. pàcc boo xam ne bii dañ koy jox limu li nga am ci jàngalekat boo xam ne bii tàggat nañ ko. maanaam école privée catholique yi. non pas parce que école privée catholique yi su ma ko waxee da ngay wax ne dañ leen di tuggee école privée catholique mais enseignement général la ñuy def. c'est-à-dire que c'est pas des écoles de catéchisme. c'est des écoles privées catholiques parce que ça appartient à l'office mais enseignement général la ñuy def donc ci école privée mën nañu wax aussi ay école privée musulmane mën nañ ko wax mhm. parce que école yi ñuy agréé di leen jox subvention am na ci ñoo xam ne ñii xale yi ci daara la ñuy jógee ba pare ñu créer école franco-arabe ñu leen di jox en même temps subvention donc mhm. loolu dama koy wax parce que ñu bari dañuy wax naan mhm. école privée catholique leen di jox ñi jàng ci daara leen jox école privée catholique tax leen di jox maanaam école privée yi dafa am école privée catholique dafa am école privée laïque dafa am école privée franco-arabe mhm. ñoom ñëpp dañ leen di jox subvention donc ñooñu dafa am benn décret portant reconnaissance des écoles privées mhm. et en même temps sur les modalités de de des subventions et primes aux écoles privées mhm. wax la lim boo xam ne bii mi ngi aaju ci élèves yi nga am yi admis ainsi de suite loolu nag moom moo amul woon mais beneen bi may beneen bi tamit su ma ko waxee yenn saa yi sama mbokku daara yi dañuy sursauté mais ba léegi nii Sénégal amul woon ay daara publique léegi lañu ñu commencé weer wi passé di tabax ay daara publique dans le cadre du PAMOD mhm. projet d'appui à la modernisation des daara mhm. nga xam ne ñi ngi tabax fonweer ak ñaari dra daara non publique fonweer ak ñaari daara publique mhm. boobu le gouvernement bi mën a jël di recruter ay ay borom ay borom daara jàngalekatu daara ñu jàng mais loolu soo ko defee il faut que ñooñu soo leen bëggee recruter ëllëg ñu nekk ay fonctionnaires mhm. il faut ñu am modalité de certification des informations mhm. pour jàngale mhm. parce que jàngale il faut nga jàng ko ni ñuy jàngale il faut nga am pédagogie pour jàngale mais ñoo wax rek ne ñun daaw ñu jox dara parce que xam nga daara yi tamit ak lu mu nekk bokk ak suñu aada lu privé la nguur gi même moom ci boppam suy ubbi école daf naan dëkk bii ren ji danaa fa ubbi école parce que su ma ubbee école war naa koo tabax war naa faa indi jàngalekat mais nit ki mënula toog ci coobare boppam daal di toog ne man damay ubbi sama daara daal nag li ci de aaju yëpp daf koy teg ci ndoddu nguur gi donc moo tax ñu def projet de loi boobu ak décret bi dañ ciy def léegi nan la ñuy defee subvention ça veut dire que alalu réew mi suñ la koy jox ci subvention dafa am aussi looy wàccoo yow ak askan wi waaw ci ni ngay yore xale yi ni ngay yoree daara bi ni nga leen di jàngalee ba ñu mën a tari. waaw foofu euh, boo ko gisee xam nga bu njëkk ba dañ doon bourse yi dafa dafa bëri woon. Mhm. loolu moom xaw ma yow yaa yore loolu wala xaw ma. def naa ba tey enseignement euh, supérieur enseignement supérieur moo yore bourse yi moo yore bourse yi. waaw kon xam naa ñaar moom dinaa ko yóbbante si yow fii. mu dox ko ko mooy xale bu jigéen bi nga xam ne. il y a deux ans moom moo jëloon troisième au niveau mondial. ci alquran ndombor seen. ndombor seen waaw kooku fu affaire am toll. ñaareel bi itam mooy bourse yooyu ma lay wax hmm. noonu. pour hmm. ne ko xam nga ñun bi ñuy jàng. Hmm. bourse yi dafa bëri woon bëri woon mais dafa mel ni léegi bourse yi yi tamit dafa am ci ay côté yoo xam ne ñoom ñoo koy dem jëlali ko seen bopp rek. indi ko ah. comme tey lu mel ni ñi yore ONG islamique yi. ñoom ñoo mun a dem euh, dem jëli ko ci dëkku araab yi te bu ñu ñëwee itam seen école bopp yi parce que itam ñooñ tamit dañoo am seeni école bopp am seen i mm. université bopp mm. en général foofu lay gën a mais doomu néew ju doole bi nga xam ne moom si daara la jànge rek ñëw def BFEMam en arabe wala bagam kooku ba lan lan ngeen ko préparé waaw léegi li nga xam ne moom moo am mooy te dugg université Dakar ci affaire BFEM boobu nga wax li ma wax xam nga tamit am na lenn ci jéego yu ñu def mm-hmm. boo xam ne bi waroon nga ko wax mm-hmm. mooy balaa ñuy yegg 2013 mm-hmm. baccalauréat arabe amul woon ci suñu système éducatif waaw ci loo leen joytu la lu bari. ñu ñëwee 2013 daje bi ma njëkk am ak euh, directeur institut islamique mu wax ma ko. ne ma presque pare na la ñu fay pour def lël yi ci topp pare ko ñu jël décret bi ñu njëkk a organiser baccalauréat arabe. pour la première fois ba ñaari at yi passé sax am na ci ñoo xam ne ñuy lauréat concours général lañu. mais loolu li mu indi mooy xam nga yow ne. lu jiitu loolu lu mat téeméeri baccalauréat arabe moo amoon ci réew mi école bu nekk rek danga doon def sa baccalauréat arabe te yenn saa yi baccalauréat arabe bi ah daawuñu ko délivrer ci condition yoo xam ni condition bi su xale bi jàngee bitim réew dana sigil Sénégal ni kii am na baccalauréat mhm. ñun xam nañ ci dara mhm. am na ci yu baaxoon mais am na ci yoo xam ne yi parce dafa doon am matière yu des am na ci matière ñu jox leen ñu jox leen baccalauréat arabe bi nga ah. xamee ne indi nañu baccalauréat arabe xam nga ah. avant nit ki da nga daan gis dañ ko jox bourse pour mu dem Al Azhar. jàng fa. di nekk enseignement secondaire. jàng seconde première terminal depuis nag bi ñu defee baccalauréat arabe nga xam ne fii mën nga fees sa baccalauréat arabe nguur gi dootul joxe bourse pour nga dem defi enseignement secondaire. parce que xam nga mënoo revendiquer dara ne nguur gi na def baccalauréat arab comme ni mu defee baccalauréat français tey jii kii def baccalauréat français. amul benn élève bu ñuy jox bourse ne ko pour da ngay dem France wala États-Unis defi seconde wala troisième wala première wala terminal comme kay am nga baccalauréat arabe tamit comme am nga baccalauréat arabe boobu itam nan la toll. waaw comme am nga baccalauréat arabe mhm. Sénégal mën na laa may nga def ko da ngay toog fi ba mu baccalauréat arabe su boobaa nag dañ la may bourse. waaw mais fi ñuy defee baccalauréat arabe boobu fan la fii ak ñaata la capacité ban la mën a jël. non non mais école yi koy def bari nañ li ci ëpp sax ay école privée la. yi ci ëpp ñuy présenter actuellement seen i candidats. ci baccalauréat arabe ay école privée la. te am na ci ñoo xam ne danañu dem ba ay résultat cinquante pour cent danañ ko am. de réussite gis nga gars yi dem nii ñoom asum yéen dem nañ ci àll bi. ngeen yaa ngi yéen a ngi fay tabax ay école yu bari bari bëggoon naa ngeen yegg ba ci Balantounda bi nga xam ne foofu dafa am problème mu sécurité mais dama bàyyi loolu. Mm-hmm. parce que enseignants yi euh, dëgg syndicalistes yi mosoon naa leen poser benn question ñu mere ma top ci réseaux sociaux yi di ma sànni xeer nee naa leen mosoo maa gis ngeen grève ci benn affaire enseignants yaa ngi ci àll bi di ëmbal élèves yi seen njàng bi di yàqu. munoo toog une semaine boo ubbiwul journal gisoo enseignant bu soo demee Kolda ma nga fa soo demee Vélingara soo demee Matam ma nga fa soo demee au fin fond du Sénégal enseignant yi jógee Ndakaaru ju affect ko fa moomal fa gone gu jigéen njàngam yam fa enseignant boobu kenn du ko sanctionné seen assises yi ngeen defoon temps yële passé fii ci ci ci ci ci ci ci hôtel bi nekk fii gisoon naa ne am na ay sanction yoo leen ci jëloon ba léegi gisu gisuguma benn enseignant boo xam ni def na loolu gone gu jigéen ñu ñu sanctionné ko. yooyu yan ngeen ciy waaw Ndoye Bane d'abord man du ma nangu. waaw nga def généraliser nii rek. ne enseignant yi dañuy ëmbal seen élèves yi. nii ku ko dégg mel ni que ne loolu. non du ñëpp mais loolu dañ koy gis. waaw déedéet déedéet vraiment loolu du ko nangu. nga jël ko di ko teg ci ndoddu jàngalekat yi. du ma ko nangu pare yeneen corps yi nekk foofu yëpp. yi nga xam ne def nañ ko. te du ministère moo ko def. ay ONG def ko. Mm-hmm. mooy élève yi nga xam ne dañuy am grossesse ci seen biir scolarité. Mhm. li ci ëpp diggante élève ak élève la li ci ëpp. Mhm. diggante élève ak élève la voilà du tey nag li nga wax am na am na. Mhm. mais yeggul dayo bi nga xam ne foofu nga ko bëgg a yeggal. te leneen li am tamit mooy que ne moo sànq nee naa leen ministère de l'éducation nationale affaire grève yi yooyu du li ci ëpp solo. bés bu jot da ngay jot ay rapport ci ay problèmes yu am. enseignant boo xam ne bii élève mineur élève mineur dem nga ci kawam ba ngeen sëq yenn yi su fekkee ne yenn saa yi parents yi dañu yóbbu mbir mi tribunal su fekkee ne dem na tribunal ba yegg si fii nii kuñ ci ne dañ lay raje kuñ ci ne dañ lay rajee mais su fekkee ne dañ laa jiiñ nag nga dem tribunal tribunal ne deful loolu kenn mënu ci dara mënu ci dara waaw mhm. Mhm. mais li ci ëpp tamit li ci mhm. ëpp ñu xam ko mooy xam na Sénégal réew maslaa la réew yenn saa yi dana am ci ay yenn dëkk yi avec le contexte de la pauvreté nit ki li ko gënal mooy mu négocier kooku takk doomam que di yegg ak moom fenn mais nag bëgguma ñu ñu jam leen loxo nii waaw études nga xam ne daal wane na li ci ëpp uh-huh. ëmbante yi am noonu. ci diggante élève ak élève. voilà Famatun après euh, Exidex. Uh-huh. je juste parler de scolarisation des filles nañ ni que actuellement éradiqué woo leen fléau boobu ba tey mu ngi nekk di continuer xale yi ñu ngi arrêté seen jàng. pour mariage précoce. wala li nga xamante ni moom mooy mariage euh, forcé ba tey mu ngi ci continuer di law est-ce que da ngeen am ay projet yoo xamante ni da ngeen ko lal actuellement vu que yéen dem partout biir Sénégal. Mm. est-ce ay projet yoo xamante ni yéen koy lal. Mm. jàppale xale yooyu pour génne leen ci loolu. sensibiliser mm. seen parents yi. pour ñu bàyyi leen ñu continé seen. scolarisation. d'accord loolu tamit xam nga dafa am solo rek laaj yi dafa am solo parce que. day day dindi li ñuy wax cliché maanaam gis-gis boo xam ne bi ñëpp dañoo xam ne alaane moom moo am te loolu ci ci fukki at diggante 2000 ak 2011 def nañ ci ay jéegalu bare bare bare ci maanaam li ñuy wax équité dans l'accès à l'éducation équité maanaam xale yi yemale jàng fu mu war a yegg mu yegg fa équité bi équité territoriale la équité de genre la tamit tey jii li ñuy wax indice de parité maanaam nga jël limu xale yi jàng yu jigéen yi teg ko ci limu xale yu góor yi soo jëlee préscolaire maanaam xale yi am diggante ñetti at ba juróom-benni at xale yu jigéen yi dem école moo ëpp xale yu góor yi indice de parité bi weesu na un d'accord soo jëlee école élémentaire limu xale yu jigéen yi jàng moo ëpp limu xale yu góor yi soo demee sax ba suñu génnee statistique gu xale yi bindu ci certificat da nga gis toujours ne su nekkee deux cent cinquante deux mille élèves da ngay gis ay cent trente mille et quelque cent quarante mille ay jigéen lañu li ci des nekk ay góor. Mm-hmm. soo demee tamit ci enseignement moyen maanaam xale yi diggante sixième ba troisième. Mm-hmm. ñi dugg ci commencé dugg lycée ba ñeenteelu at bi foofu tamit limu xale yu jigéen yi ñoo ëpp limu xale yu góor yi mm. ci enseignement secondaire diggante seconde ba terminal ci la limu xale yu góor yi a ëpp limu xale yu jigéen yi te loolu dafa am ay régions yu mu gën a touché mooy ay région de Kolda région de de de de Matam ainsi de suite mais loolu xam nga loo xam ne lii xeetu nit lay laal du looy changé ci benn at parce que problème de mentalité la problème de culture mm-hmm. donc ay sensibilisation la mobilisation. beaucoup d'actions sont menées. tey jii ministère am na benn benn projet bu ñuy wax PAEF. Uh-huh. projet d' uh-huh. projet de l'éducation des fii uh-huh. buy intervenir ci ay régions. plusieurs choses la ñuy def. dans les régions dans les dans les zones reculées défavorisées jigéen ñi nga xam ne gis nañ ne xale yu jigéen ñi am nañu ay potentiel dañ leen di jox bourse dañ leen jox bourse moo tax xam nga yenn saa yi soo toogee dakaar dem nañu benn village bu nekk ci département de di région de Kolda presque frontière Guinée-Bissau bi ñu jëlee cinquante mille francs yi jox ko yaayu xale bu jigéen bi dafa jooy mu ne dans sa vie masula téye cinq mille cinq mille jox ko fukki jox ko fukk mos koo moo moo tax nit ñi suñu nekkee Dakar fii di wax yenn yi dëtt comme ça moo tax ñun tout le temps ñuy faral dafa jooy Sénégal du Dakar donc ñu dañ leen jox bourse Dakar am na ci même projet bi am na benn expérience bu ñu tenté Bambey xam ngeen ne Bambey am na lu bari ay jànq yu fay jóge mhm. ci département boobu ñëw di liggéey Dakar mhm. donc c'est pour des raisons économiques maanaam pour yore kër gi dépense mhm. moo tax ñu jël xale yooyu du ñu jàng di leen indi ñuy liggéey dakaar projet bi jël fa li ñuy wax association des mères d'élèves association mères d'élèves yooyu yaa ñaari at dem naa fa dañu jël xaalis jox leen ñu ciy liggéey très bien di bay tool di defar ay céréales wala dara très bien bi ñu koy indi ci comité de gestion d'école bi moitié bi ñoom ñu koy yor ñu gis ne village boobu bi ñu defee expérience boobu mhm. taux bi fréquenté fii dafa ëpp donc am na ay jéego yu ñu ciy def ci yu mel noonu. te may terminer rek. soo jëlee tey jii lycée scientifique d' excellence de Diourbel bi ñu bi ñu créé daaw. daaw nga xam ne mooy première promotion bi. xam nga lycée scientifique boobu dañuy jël. élèves yi gën a xarañ. ci troisième. maanaam il faut nga am moyenne quatorze. ak moyenne quatorze. quatrième ak troisième. Mhm. ba pare am moyenne quinze ci matière scientifique yëpp. Mhm. mooy mathématique science physique ak SVT. Mhm. pour mën a def concours bi. élèves bu troisième yi doon répondre ci critères yooyu deux cent soixante la ñu. cent soixante yooyu ay jigéen ñoo ci ëppoon. bi ñu defee concours bi comme école bi dañ ko def internat mais internat mixte. avec euh, euh, internat séparé entre filles et garçons. espace pédagogique bi rek la ñuy bokk. ma ne ah su toolee nag nan la ñuy def parce que bëgguma góor yi ëpp ci. waaye bi ko defee. fi mu nekk nii fanweer ak benn jigéen ñoo fa nekk ñaar fukk ak juróom-ñeenti góor ñoo fa nekk. 31 mhm. contre vingt 29. Euh, sama laaj bu mujj moo nekk dama bëggoon juste ñu wax ci éducation civique. seetlu nañ ni que dañu xaw a am quelques problèmes ci suñu société bi que dañ ko bëgg a éradiquer dañu bëgg un Sénégal émergent un Sénégal émergent pour nga mën ko am il faut que ñun Sénégal ñun population yi ñu ñu ñu gën a accentuer je pense yéen waa ministère de l'éducation ngeen accentuer un peu ci éducation civique bi basage bi la ñu mën a soppi la ñu mën a changé est-ce que xalaat ngeen ni amoo leen ay euh, euh, ay projet yoo xamante ni teg ngeen ko pour que éducation civique bi ñu gën ko améliorer gën ko yokk comme ça nouveau type de sénégalais mën a judduwaat pour ngeen mën am Sénégal émergent éducation bi ngeen bëgg. loolu am na solo mais xam nga éducation civique sax am na matière buñ koy def déjà soo nekkee enseignement élémentaire maanaam xale yi tout tànk yi mhm. yaa am juróom-benni at ba fukki at ak ñaar mhm. balaa ñuy am certificat bi ñu changé programme yi am na ay jàng yu ñuy jàng yu ñuy wax vivre dans son milieu vivre avec les autres. Mhm. foofu ñu koy jàngale. ci ci ci réforme programme bi. vivre dans son milieu. Mm-hmm. vivre avec les autres et ainsi soo demee enseignement moyen am na toujours éducation physique soo demee euh, enseignement secondaire moo tax ngay gis concours général prix citoyenneté et droit de l'homme mm-hmm. mu am am na solo mais xale bi duñ koy yar rek ci matière u éducation civique bi maanaam éducation bi dafa war a nekk matière yëpp dañu war a laalante soo koy jàngal histoire géographie war nga former enseignant bi ba ci biir histoire géographie boobu mu ko ci jàngal wareefam ak réewam mm-hmm. ak aussi ay aqam ak fam ak réewam mm-hmm. ak li nga xam ne aussi lu bees la lu ñu tëral gis ngeen ko bi ma demee Touba tranquille ku jubee ak yooyu bi ma fa demee mm-hmm. cérémonie bu nekk rek dañ koy commencer ak lever suñu drapeau xale yi jàng hymne national. loolu dafa am solo tamit. Mm-hmm. waaw daal pour wax ne daal ñu ngi ci. waaw <laughs> Exidex balaa ñuy fekk euh, Marianne fa mu ne pour jël question internautes yi hmm. et puis bàyyi itam Assoumben ci bu mu euh, àggali ak yeneen question voilà ah. alors euh, monsieur le ministre man ñaari question la am rek bi may tàmbalee moom mooy par rapport ak subvention yi def ci daara yi. Hmm. est-ce que parce que ku ci nekk rek da ngay créer sa daara bopp. Hmm. ah est-ce que da ngeen am da ngeen di recenser ay daara teg ko ci ay critères ne ku mel ñu subventionné la wala ñëpp ci bokk yam euh, ñaareel bi mooy euh, lim yi nekk ci biir classe yi mm-hmm. parfois nga gis classe boo xam ne ni euh, xat na xataay goo xamante ne mënul jël fukki nit mm-hmm. ñu def ci ñaar fukki nit mm-hmm. est-ce que classe bi da bu nekk dafa norme bu ñu war respecté bu amee lim bi ñaata la war a doon léegi pour mbirum daara yi subvention yi ñu wax ne moom lañ leen di jox moo tax ma ne la ñuy ñuy liggéey ci sart boobu loi sur les daara loi bi day am ay décret d'application day mel ni école privée yi rek ci loi bi dafay am ñaari étape soo ubbee sa daara pour ministère dafay am atabu li ñuy wax autorisation d'ouverture du daara boo xam ne bii da ngay indi benn dossier mu aw ci inspection yi aw ci service su préfecture ouverture suñ la autorisé da ngay toog deux ans avant ngay mën a postuler reconnaissance suñ la autorisé ba bi ngay am reconnaissance boobu doo am subvention maanaam yow da ngay demal sa bopp ba présenter ay premier nit ci examen soo ko présenté nga am nga deux ans d'existence ñu ñëw defaat beneen inspection nga déposé dossier de reconnaissance dossier de reconnaissance bi du ministère rek mooy toog de dafa am ñoo xam ne ñii bokkuñu ci ministère tamit ñooy toog ni ñu koy defee école privé yi suñ la reconnaître nag ci ngay doog a am subvention soo amee subvention tamit dafa am looy wàccoo maanaam xale yi il faut nga leen di présenter examen officiel yi inspecteurs yi dañuy ñëw ci sa daara wala ci école privée comme ni école privée yi di ko inspecté waaw mhm. loolu mooy mooy taxawaay bi quoi du nekk rek du nekk général non parce que yeggaguñ ci parce que loi bi amul mhm. fi mu nekk nii rek am nañu benn projet pilote bu ñu am ci ci mooy mooy paquet mooy daara paquet bi mhm. projet d'amélioration de l'éducation de base bi ñu ko defee dañu ne dañuy jël comme bëgg nañ dugg ci daara yi dañuy jël ay yenn daara lim am ak ñoom projet pilote bi ñu lancé appel d'offre bi on avait à peu près mille cent daara junni ak ñeenti téeméeri daara yu déposé woon seeni dossier ñu jël ci téeméer téeméer yooyu dañoo signé ak ministère li ñuy wax contrat de performance maanaam ñu joxe ay objectif ne fii la ñu bëgg a yegg xale yi dañ leen jàngal alxuraan waaye dañ leen jàngal calcul dañ leen jàngal français ñun ministère ñu jël profu enseignant français tàggat ko pour mu leen di jàngal jox leen tamit loo xam ne lii pour dund xale yi la pour euh, ak seeni i téereeg yu mel noonu. léegi loolu biñ ko xaymaa bëgg nañ ci yokkaat yeneen cent. mais nag loolu yëpp pour mu yemb il faut que sart boobu ma leen di wax ñu voté ko mooy projet de loi bi sur les daara. voilà Assoumbène juste Pape Cheikh mhm. bëggoon naa rebondir depuis euh, sànq pour ñëwaat euh, ci daara yi. Mhm. parce que dafa am euh, seetlu boo xam ne def nañu ko temps yi yëpp mais bi yaa Seyda waxee laa xam ne xëy na seetlu bi du tey rek. Mhm. yàgg na fi yenn saa yi nit dafay def xëy na franco arabe. def benn cursus am baccalauréat dem ñu ne ko sa niveau français dafa wàcc torop demal jàngiwaat. ndax réforme yooyu nga xam ne yéen a ngi koy sumb ndax sóoraale ngeen ko ci parce que tamit def diir bu yàgg ci ci école. Ah. dem ba université ñu ne la sa niveau de langue. liñ fi làkk fii munoo koo dégg. Mm-hmm. demal jàngiwaat nga dem xëy na waat amee RMI si DRMA si la beer delloo la ginnaaw bu baax a baax a baax nga perte fa xëy na ñaar ñetti at fekk na yow sa morom ya nga ama dool bac ah. xëy na ñu ngi niveau licence. Ah. yow nga soog a di dugg mm. ndax problème mu niveau de langue. Mm. loolu ko ci sóoraale ngir yem ci taabal ji. waaw xam nga léegi dama ne la euh, baccalauréat yi dañ ko normé baccalauréat du ministère éducation nationale moo koy joxe xam nga baccalauréat mooy diplôme universitaire bi njëkk. Mhm. office du baccalauréat moo koy joxe. Mhm. aaju ci ministère éducation nationale. baccalauréat jury yi examen yi président de jury yëpp ay professeur d'université lañu donc mooy premier kii bi jamono boobu doon na am ndaxte wax naa la am na fa ay baccalauréat yoo xam ni du université moo ko doon joxe. waaye depuis 2013 baccalauréat arabe bi université moom moo koy joxe léegi pour ñu def franco arab normalement warula am problème ñi am problème mooy ñi nga xam ne arab pur la def mooy baccalauréat arabe bi te loolu ci projet yi nga xam ne ministère enseignement supérieur am na ko am na je pense projet créer benn université euh, arab et islamique maanaam daal mu am mais pour le moment dañ leen di yóbbu waaw pour le moment bitim réew la ñuy dem jàngi te bitim réew boobu tamit lii da seen ñaxtu maanaam avant dañ daan jël section arabe ci ENA leen former diplomate parce que am na ay diplomates yoo xam ni. xëj na pour pays arabe yi la ñu. loolu ubbiwaat nañ ko. waaw ubbiwaat nañ ko. président bi mu ñëwee mu ne dañ koy ubbiwaat. mais mais Pape Cheikh dafa am benn. ma jóg peex balaa ñu ñëw ci yow Marianne wax ma euh, internautes yi itam euh, lu ñu bëgg euh, monsieur le ministre wax leen ko. internautes yi de li ñu posé ci ay question Pape Cheikh bari na. moom kay sakkan na bari na waaw bari na macha allah. <laughs> te guddi na ñun tamit léegi ñu laal li de. <laughs> déggatuñ la euh, voilà déggatuñu euh, Marianne siba euh, pour laaju internautes yi balaa ñu ñëw ak Modou Père Ndiaye Piré tamit sax bëgg naa am lu mu laaj monsieur le ministre ay Paye Fall itam même chose alors Marianne waaw ñu déglu la. waaw Pape yaa ngi may dégg. waaw ñu ngi lay dégg bu baax waaw. waaw ma ne question yi dafa bari. Mhm. mais yu ci bari ñëwaat na ci plateau bi. Ah. jàll rek très rapidement. Mhm. Euh, ñu commencé que par euh, Ababacar Moumi Ndiaye. Mhm. Euh, moom nee na li mu bëggoon laaj monsieur le ministre mooy enseignants yi nga xamante ne ñooy ex élèves maîtres yi. Mhm. nee na ñu génne ci CRFPE. nee na dafa bëggoon xam ndax ñooñu dinañ intégrer fonction publique oui ou parce que paraît-il que def nañ sax collectif bu mag et ñoom ñu ngi ñuy sonal bu weesoo commentaire yooyu ak ay woote depuis sànq. pour bëgg a wax ak monsieur le ministre. waaw xaaju question yu ci bëri sax. oui ci ñoom la jógee waaw mm. loolu la bu weesoo ñooñu keneen ki tamit mooy euh, Binta Tour Fatou Diop. Mm-hmm. moom tamit nee na li mu bëgg a laaj mooy concours Fastef bi. Mm-hmm. nee na ren amul. Mm-hmm. Euh, nee na mu bëggoon xam euh, kañ lañ koy organiser waat. parce que nee na fii dañu dañu manqué ay professeurs yu qualifiés. moo tax concours Fastef bi da ciy baax mu bëggoon laaj monsieur le ministre kañ lay la concours Fastef boobu di amaat. Ndiaga Matar moom dafa ñëwaat ci question daara yi mhm. nee na li mu bëgg xam mooy lu tax daara yi bokkuñu ci budget ministère de l'éducation Pape mhm. Cheikh euh, su la neexee mun nañu enchaîner mhm. ak question Mapenda wala waaw waaw waaw ayca ayca mu ngi déglu <laughs> waaw. waaw waaw waaw Mapenda moom <laughs> euh, li ko Samba di laaj. mooy nee na euh, famille Seck macha allah bëri nañ ay woykat mu lim ci waali lim ci Mandiaye ak ñu bëri nee na mu buggoon xam est-ce que ñoom famille Seck waaj nañ seen biir pour bokk benn cassette ñoom seen biir. Euh, euh, jaba jaba yaayu buur moom li mu bëggoon xam mooy nee na lu ñu koy gis euh, faral di gis lu bëri ci ay soirée nee na mu bëggoon xam lan moo tax Mapenda daal di marqué pause ndax dafa am lu rëy lu muy waajal wala lan moo tax Pape Cheikh. voilà donc ñu ngi lay gërëm bu baax Marianne ñu bàyyi d' abord monsieur le ministre tontu ci laaj bi d' abord ñi ñu tuddee élèves maîtres. élèves maîtres waaw waaw ñoom fi mu ne. oui wax nañu dëgg. te ñoom tamit euh, dañ may envoyé ay message toujours pour pourtant maa ngi leen di tontu xëy ne information bi moo doxul mhm, mhm. Euh, dama leen bëgg a dalal seen xel rek mhm. pour wax leen ne mooy ñi nga xam ne bi ñu réformé concours bi léegi dañuy am baccalauréat dem juróom-ñeenti weer après génn nekk maître contractuel lañ leen di jëlee dootuñu leen jëlee comme volontaire dañuy nekk directement maître contractuel parce que avant volontaire yi ñu daan jël dañ daan nekk volontaire toog deux ans après jàll maître nekk nekk maître su ñu nekkee maître contractuel ñaari at suñu leen inspecté ñu def CAP certificat d' aptitude pédagogique après léegi déposer seen dossier pour ñu titulariser leen ministère ñoom su ñu génnee dañuy nekk directement maître contractuel ñu defee CAP nag war a déposer dossier pour ñu titulariser leen fonction publique ñoom ci ñoom nag bi ñu demee déposer dossier fonction publique ñu ne leen yéen décret bi nga xam ne moo doon gérer volontaires yi nekku leen ci bi mu amee ma oo sama service yi notamment directeur des ressources humaines ma ne ko lii parce que élèves yi ñooy yaakaaru enseignement ëllëg parce que formation bi ñu leen jox formation de qualité la ñu def concours bu difficile génn defaat examen génn waruñoo néewal seen i mbir donc dama leen bëgg a wax ne xel mënu la jàpp ñoom xel mënu la jàpp ñu toog ba retraité nekk maître contractuel mmh. donc dama bëgg a dalal seen xel ci loolu danañ leen recruter au niveau de la fonction publique. ci seen plan de carrière. dañ leen recruter. mais nag dafa am fu muy aw dañuy def CAP il faut que ñu def CAP. déposer seen ainsi de suite CAP. donc dama leen bëgg wax ne non képp koo xam ne kii jël nañ la. Mm. génn nga nga def examen admis. Mm. soo nekkee maître contractuel. Mm. su fekkee dem nga def sa diplôme professionnel am sa CAP. danañ la recruter ci fonction publique. fonction publique léegi li nga xam ne moom moo ko indi. li nga xam ne moo ko indi mooy décret bi comme ça parler de volontaire qu'on doit titulariser. Mm-hmm. bi mu demee xam nga yoon dafa dafa sew. dafa sew ministère de la fonction publique ne leen. vous n'êtes pas prévu dans le décret. Mm-hmm. ma yónni DRH. Mm-hmm. bu ministère bi directeur des humaines Ibou Ndiaye. mu dem def séance de travail am na ñaari ñetti ay bés ci ginnaaw. ak directeur général fonction publique. mu won ko ne ko kon article bi. la ñu war a changé. Ah. bind nañ ko ba pare. Mhm. suñ ko changé ñoom su boobaa danañ mën a yóbbu dama waaw mais ah. mais dama leen wax daal même fait en collectif waaw bu ñu jaaxle bu ñu jaaxle vraiment waxoon naa directeur formation sax. même être reçu. oui naa directeur formation. Mhm. contacté na leen directeur de la mhm. formation Mohamed Diagne képp kuy seen responsable promotion contacté na leen pour dalal seen xel dama leen di wax rek nekk problème bi moo doon bi ñu changé mode bi. dafa am benn article décret boo xam ne bi changé wuñ ko woon. bi dem yi dossiers yi demee bañ koy liggéey. fonctionnaire bi ciy liggéey gis na article boobu. mu bind taseeg DRH ñu liggéey actuellement pour changer loolu. voilà parce qu'ils sont plus de 14 000 selon. non non non non c'est pas plus de 14 euh, c'est pas plus de 14 000. def xamante ni ñuy toog di xaar non non c'est ci ay non non c'est pas plus de 14 000. parce que wax naa leen daaw ñi génn ren ñi génn daaw ay deux mille trois cent soixante huit. Mhm. après deux mille cinq cent ak beneen promotion avant. d' accord mais euh, daal dama leen dama bëgg daal pour seen xel dal. d' accord monsieur le ministre. Euh, sànq bi nga waxee si daara yi da nga ne. Mhm. Euh, ni ñu ko bindee woon moom moo amoon jafe-jafe. Mhm. ngeen ne nañ ko waxtaanaat soppiwaat ko. élève maître yi ni ñu ko bindee woon moo amoon jafe-jafe nañ ko waat soppi ko. ndax li ñuy bind jotul ñu di ko xool balaa ñu koy jébbal ñi nga xam ne ci ñoom la jëm yi du liñ ko bindoon moo am jafe-jafe liñ ko bindee woon bi nga xamee ne bind nañ ko pour volontaires yi ñuy jàll ñuy dem ba ñu recruter fonction publique léegi volontaire amatul. dañ ko soppiwul bi ñu amulee volontaires yi peut-être xel dafay fattu. Mhm. ñi ciy liggéey xalaatuñu woon changer article boobu. pour ne plus parler de volontaire mais parler de maître contractuel yuy génn CRFPE après ñu dugal leen. kon kay mbind ah, ma la ba tey rek. dañ ko soppi c'est ça <laughs> waaw affaire Pastef léegi non non du loolu. non non non non du loolu. non c'est que c'est que mais quand même mais quand même jomb naa jomb naa pour wax leen loo xam ne lii amul. parce que waaw jomb naa ko. non c'est juste rek c'est juste rek pour pour pour leeral parce que tamit élèves maîtres yi nga xam ne ñu ngi toog seen kër wala mm. téléspectateurs yi ñu ngi toog seen kër seen kër xëy na ñun mënuñoo gàddu seeni question yëpp parce que ku nekk am na leen loo ci bëgg a wax mais nag ñu jéem a matale li nga xamante ni si moom moo ñu fi tax a toog ñaari fan ci ginnaaw mhm. dama au DRH bi nga xam ne moo demoon fonction publique mhm. ma ne ko awma fi mu nekk nii soxla boo xam ne bi moo gën a rëy pour ñoom ñu régulariser seen situation parce que ñooñu dañoo am yaakaar ci ñoom mhm. dañ leen a former ñu def concours ñu former leen juróom ñeenti weer ñu def examen pour admis génn bi may bi ñu def seen feetu promotion yi di génn damay gis amour bi ñu am kenn ci ñoom moom laa fekk nii ni gébeje mais ñi sama responsabilité la responsabilité gouvernement ñu jël en charge seen problème réglé ko. élève maître bi fi amoon jafe-jafe moom lépp doxee na fa tàbbi àjjana. ña doon tricher. ah ñooñu du demoon nañu pour suprême. waaw après ba léegi sax maa ngi dégg ñu naan. ministère bi respecté wul décision cour suprême. Uh-huh. mais ma koy waxat fii. mais fan la lépp doxee na fa tàbbi àjjana wala tàbbeegul àjjana. coow coow laay tojalee ni mu def ba jàpp leen. respecté nañu respecté nañu décision cour suprême bi. mais papa man de la walaay laaj dafa am solo loolu. <laughs> parce que cour suprême daf ne. Uh-huh. ministre bi amul woon droit dàq leen. jury bi daje woon ne ñii admis nañu. comme moo souverain. Hmm. moom même ministre bi su gisee erreur. Hmm. dafa waroon na jël mbir mi yóbbuwaat ko ci jury bi. Hmm. jury bi nga xam ne moo dajee woon ne ñii. admis nañu. moom ma mën a déclaré waat ne admis wuñu xam nga décision cour suprême. du décider sur le fond. parce que gis nañ fi ay décret yoo xam ne yi cour suprême daf koy invalider. président bindaat ko jëlaat ko defaat ko mu génn mu dox. Antoine Diome defe naa bi ñu ko fi nommé CREI premier décret bi dañ ko invalider woon. bi nga xamee répondre na critères yi. Mhm. ñu nomewaat ko mais kenn yóbbu ko course mhm. parce que loolu la ñoom bi ñu bi ñu defee loolu li ñu def. Mhm. dañoo jëlaat notes yi. parce que ñu ngi yore woon copie yi. gis collecteur bi li mu leen may ñu ne ñaar la leen may. sur vingt. ñu def ko fukk ñeent wala dara. ñu jël yóbbuwaat ko jury bi. jury bi jël copie par projet projeté ko ci écran ñoom ci seen bopp ñu ne dëgg la ne dañoo. yokkoon nodd yi bi daal di annulé bi mu annulé ñu doxaat leen ko boo ba léegi déggu leen ñu dem cour suprême donc ministère éducation nationale gouvernement bi wàccoo na woon ak li nga xam ne moom la Cour suprême wax. kon daal ñoom mën nañoo jàpp ne bokkatuñ système éducatif sénégalais. ñoom koy voilà non a defaat egg si bëgg a am na ci am nañ ci sax kenn am na ci ñenn ñenn ñoom ñu ñu def am man benn loo xam ne daf ma métti ci njàngale bi. bi xaaral ma wax FASTEF bi mooy li muy wax concours bi defuñu ko mais def nañ ko xam nga concours FASTEF mooy ñi nga xam ne dañoo bëgg a jàngale ci école yu mag yi maanaam professeurs yi. Mhm. ñoom FASTEF la ñuy jàng jàngale ancienne école normale. ñooñu ministère éducation nationale du ci coobare boppam lay wax ni li mu jàngalekat bi laay jël at mu jot dañuy def ay calcul dañoo am benn outil bu ñuy wax simulation. fekk 2035 mën nañ leen a wax ñaata élèves la ñuy ami ñaata jàngalekat la ñu war a ut par at. ñaata classe la ñu war a tabax. fi mu nekk nii ñi ngi nekk un million huit cent mille élèves. en deux mille trente cinq. nous serons trois deux cent vingt cinq mille élèves. donc dafa am planification bu ñuy def xam donc chaque année ñaata jàngalekat la ñuy jël. voilà léegi ci loolu dañuy bind ministre premier ministre ne ko ren jii ñi ngi soxla junni ak juróomi téeméeri jàngalekat. premier ministre au ministère fonction publique toog. au ministère finance toog. ñu seet. fonction publique li ñu mën a recruter. finance li mu mën a attan. ñu ne ñu autoriser nañ leen junni. wala autoriser nañ leen juróom-ñetti fukk wala juróomi téeméer. ren ji ci ay professeurs yu dem FASTEF ñu ngi ñu autorisé juróomi téeméer. bi ñu autoriser juróomi téeméer. ñu def suñuy calcul daal di bind FASTEF lettre. ne ko juróomi téeméer yooyu. lii lañ ci soxla ci professeur de mathématique. lii lañ ci soxla ci professeur français. lii lañ ci soxla ci professeur Euh, éducation physique. bind nañ ko donc yónnee ko FASTEF léegi ñoom ci lim boobu. ci li ñuy def concours nag pour délibérer pour après former professeur yooyu tàggat leen ñaari at. wala benn at. indiwaat ko ci biir éducation. monsieur le ministre waaw dama ko bëgg a laaj benn affaire boo xam si ne daf ñu daf daf ma koy gis chaque jour. Hmm. muy ko école formation yi. waaw ñi nga xamante ni privé lañ. waaw da ngay gis xale bu mën a jàng trop. jàng ba am BFEM moom. yàq njàng moom dem ci formation. ñu dem déposer liggéey ñu yóbbu jël ko ci société xamu fa sax lam fa war a def loolu lépp ci école formation mu ngi enseignement supérieur ak ministère de la léegi ah, loolu loolu fan ngeen si toll yéen ah. si si si ñooñu nga xamante ni ñooy def école formation yi te te te école formation école formation yi ñooñu def formation hmm. fa fan fan lañ leen war a jàngal jàngalu leen ko ba bu ñu demee ci société tey dem di liggéey ak ñooñu. Mm. war a am niveau ba ñu a am. wotee coiffure boobu loolu waaw am na lu ma ci mën a wax bi que am na ci lu bari xam ne lii ci njàng mu kaw yi la mi la nekk enseignement supérieur. Ah, ci la nekk waaye am na lu ma ci mën a tontu. xam nga enseignement supérieur <laughs> enseignement supérieur dafa am fu mu nekk nii. initiative privée la. fu mu neex nga ubbi sa école supérieure. ñi di def marketing ñi di def bâtiment ñi di def comptabilité ku mu neex nga ubbi. waaye waajur bi nga xam ne mooy yóbbu doomam. li mu war a njëkk def. su yóbboo doomam foofu. ne ko ndax diplôme école bi reconnaître nañ ko. benn bi mooy école bi ndax léegi parce que depuis 2012. gouvernement bi dafa créer li ñuy wax ANAQ-Sup. Mm-hmm. autorité nationale d' assurance qualité de l' enseignement supérieur. boo xam ne bi formation bu nekk moo ko war a agréé donc waajur bi su njëkkee dem wala élève bi bindu mooy ne ko ndax yow sa école bi am na agrément ANAQ-Sup voilà même ñooñu suñ ko waxulee dëgg su ko neexee mu dem ci ANAQ-Sup wala mu dem ci site internet u sup seet ndax am nañu agrément beneen bi laaj ko ndax sa école bi diplôme bi CAMES. Mhm. mooy conseil africain et malgache de l' enseignement ndax reconnaître nañu. voilà donc loolu nag moom moo koy def ci coobare boppam. waaw mais monsieur le ministre bala <laughs> xëy ah, balaa ñuy. dem nag ci politique. <laughs> parce que bëgg naa ñu jeexal ak moom ak politique. dinañ ci euh, bi dégg naa. Euh, premier ministre moo ko mais Pape Cheikh xam nga am ñu droit dem ci politique te waxuñu <laughs> waxuñu waxuñu tuuti waxuñu ci mouvement d'humeur yi waaw. ñu jeexal ak moom politique. waaw ma peine euh, doog a tontu ci li ko intervenir ah, laaj. waaw ah, après Aïssatou monsieur le ministre yaa ngi wax ci euh, école de école école formation yi doxalinu waajur yi mhm. ci enseignement supérieur mhm. mais tey ndax doxalinu waajur yi commencé wul ci xale tout tànk mhm. da yenn saa nga dem ci nga dem ci école primaire euh, maître ne la man sama jafe-jafe bi gën a metti mooy kër ga jàng amu fa da ngay jàngale lundi. bu ñu demee du ñu réviser. Mm-hmm. yenn saa ñenn ñi ni ñuy wàccee teg saag bi. Mm-hmm. bu ñu xëyee noonu la ñuy jëlaatee saag bi gàddu dem école. Mm-hmm. li nga jàngale woon lundi. bu mardi moom ngay jàngalewaat. li nga jàngale woon lundi jàngalewaat ko mardi bu mercredi moom ngay jàngalewaat. est-ce que tey jotul. autorités yi ñu ngi def lu ñu mën seen kéemtalaay kàttan. médias yi ñu ngi jéem. ndax tey jotul way jur yi. ñu dugal seen loxo. ñu xam ne kat xëy na sa doom euh, boo ko wane ne li ngay def ni yitteel na ma xëy na moom dina ci gën a sawar mm. ku nekk tamit am ci wàllam ndax ñun mm. suñu wayjur ñoo ñu jàngal naam sax mm-hmm. seenum njàng soriwul woon mm. waaye boo wàccee dinañ teg seen gën teg seen lekket di dëbb yenn saa ñu ne la liiral ma dégg naam la nii wax yenn saa yi duñ ci xam dara mm-hmm. est-ce que tey jotul ñu sensibiliser wayjur yi bu sa doom jógee école lan moo war a nekk doxalinu wayjur ci biir kër mm-hmm. ginnaaw bi maître bi defee li nga xamante ni si moom mooy waree fam ca daara am na solo sensibilisation am solo torop parce que loolu dafa nekk loo xam ne dafa manqué suñu jàngu réew moo taxoon euh, ay at ci ginnaaw ñu defoon fi li ñu doon wax benn opération retour au royaume d'école maanaam ancien élèves yi d'abord ku ci nekk mën a dellu ci sa école di xam li fa am ci sa école mm-hmm. retour bi parce que ah. gouvernement suy liggéey mm-hmm. lii tax liggéeyam baax tamit ak mm-hmm. jàngalekat yi dafa am li ñuy wax contrôle citoyen mu war a am ci école c'est-à-dire nit ñi dañu war a intéressé. Mhm. lii xaw ci école bi. Mhm. loolu ban jéego lañ ci def. 2014 mhm. am nañ benn décret bu ñu génne. ñu koy tuddee mise en place des comités de gestion des écoles. xam nga ba 2014. budget école élémentaire u Sénégal yi 800 millions de francs CFA la woon. juróom-ñetti téeméeri million la woon CFA. budget boobu soo ko indee nga xayma ko. lu mu toll ci élève bu nekk quatre 400 francs la woon juróom-ñett fukk waaw waaw juróom ñetti fukki dërëm la woon à peu près par élève soo ko xaymaa nga indi ko ci limu élèves yi bi ñu ñëwee ci li ñuy wax gouvernance bi ñu yóbbu ko fi mu gën a jegeñee ñu ne léegi budget bi te budget boobu 800 millions yi inspection yi nekkoon ci département yi ñoo ko doon gérer su école bi jënd craie ñooy jënd craie di ko yóbbu ci école bi mhm. bi ñu ñëwee depuis 2014 avec décret boobu ñu ne budget boobu d' abord dañ koy yokk progressivement pour mu nekk 3500 par élève. 2014 mhm. ñu viré ñu jàllee ko 800 millions yóbbu ko 3 milliards. 2015 mhm. ñu yóbbu ko 3 milliards 5. 2 mhm. milliards 5 d' abord 2014. 3 milliards 3 milliards 5. octobre bi passé 3 milliards 5 la ñu viré ci conte comité de gestion école yi. ñu ne comité de gestion école yi léegi du directeur bi moo koy c'est membre de la communauté moo koy jiite. école bu nekk ci village association de jeunes yi danañ ci am représentant. Mhm. association de famille danañ ci am représentant. Mhm. autorité yi quoi. donc c'est pour faire ce qu'on appelle une école de la communauté dans la communauté par la communauté et pour la communauté. Mhm. mais loolu nag li koy indi beneen bi. mooy parent yi. soxlawul parent bi jàng. pour won intérêt jàng ci doomam. man mii. sama maam moo ma yar bi may jàngi di ñëw xamul woon A ni B daf ma daan teg ci wetam ma nekk fa rek les quatre points cardinaux sont l'est le nord le sud le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest too too tàpp pàtte est du sud wax ci kaw loolu rek laa daan wax su ma déggulee ma wax rek mu jël yar bi dóor ma déggatuma la de <laughs> déggatuma la de jàngoo de ba bi ma nekkee sixième mhm. problème boobu laa njëkk am mhm. parce que mathématiques yi ay x y yi mën na fa nekk naan x y égal <laughs> su ma jékki-jékki rek mu dóor ma ne ma jàngoo de ma ne ko maam mathématique lay jàng wallaay tey tale <laughs> mais loolu rek loolu rek xale bi su ñëwee sax ngay xool kayam et ça c' est prouvé scientifiquement mm-hmm. scientifiquement c' est prouvé que parent bi mm-hmm. su wanee intérêt ci xale bi def rek xale bi day gën a dana am lu muy yokk résultat c' est prouvé parent xam ne bi du xool mukk kay mm-hmm. élève bi ak parent bi nga xam ne daf koy xool même su jàngulee naan ko ah sa bind yi da rafet na lii moom lan la ainsi de suite expliqué ma xale bi dana ko may ci loolu c' est un défi à régler beneen bi mooy loo xam ne démarré nañ ko éducation. mooy li ñuy wax cours de soutien et de remédiation. maanaam xale bi loolu ci système français dafa am. xam nga suñu réew déggoon nga à un moment donné ñu ne léegi dañuy def passage automatique. certificat bi ñëppay at bi. baaxul loolu baax na su fekkee ne am nga système buy détecter élèves yi nekk en difficulté. Mhm. nga defal leen ay remédiation à part. maanaam jàngal leen parce que ñëpp xel yemul. Mhm. mais loolu amuloon suñ système su amulee doo ko def. commencé nañ ko. mais je pense que projet boobu maa ngi ciy liggéey ak association des maires du Sénégal. ñoom ñoo ko war a jël en charge. sa veut dire que war dafa war am partenariat entre maires yi Sénégal yi. ñoom ñu recruter ay encadreurs élèves yi nekk en difficulté après midi bi ñu leen di jël. ñun ñu jël di leen encadrer sur le plan pédagogique ak support yi xale yi jàngee maanaam livret d'activité yi ak livret d'intégration yi ñun ñu koy dindi mhm. forme ay encadreurs et peut-être plus mhm. mën nañoo wax ne pour nga nekk enseignant il faut que d'abord nga am benn attestation que nekkoon nga encadreur dans les collectivités locales mais loolu yëpp c'est des transformations et des réformes qui demandent aussi des discussions mais c'est une vision que nous avons waaw waaw mm. pour la communauté pour ñu koy jël en euh, euh, le ministre mm. euh, man su ma xoolee bu baax njàng bi li si sooxe bëri na mm. soo xoolee si wàllum qualité enseignant soo xoolee ci wàllum quantité enseignant par rapport rapport ak euh, village euh, ak région yu sore yi hmm. am na ay région yoo xamante ne hmm. dañ naan lim bi ñu soxla sax ci enseignant soxlawuñu ko hmm. euh, loolu en fait je veux dire que ay parenthèse rek par rapport ak problème yu bëri yi ñuy dund ci wàllum éducation man lim la bëggoon laaj mooy est-ce que xalaat nga am na solution pour pour ñun tey ñu ñu waat éducation Sénégal comme nu mu mel woon est-ce qu'il faut une solution miracle ou pas non il pas de solution miracle c'est l'effort rek c'est le travail mhm. et dire la vérité au gens mhm. et avancer ci ay réformes même si c'est dur même si c'est dur su fekkee ne métti na nga continuer ci réforme yooyu mhm. parce que soo nekkee politique De ci benn livre bu ñuy wax le file de l'épée daf ko ci bind soo nekkee politique doo liggéey pour tey nii pour ëllëg da ngay liggéey pour ginnaaw ëllëg même sooy jël ay décision impopulaires tey. Mhm. nga jël ko mais xam ne pour sa njëriñu réew la. Mhm. par exemple eh, eh, eh, li mu xa élèves yi ngay wax jàngalekat yi manqué ci yenn région yi mais dëgg la damay dem Sédhiou dem Kédougou dem Matam li ñuy wax région périphérique parce que Dakar ils pensent que ce sont le centre donc ils appellent les autres les périphériques alors que les autres pour les autres c'est Dakar c'est les périphériques <laughs> donc da nga fay dem ñu ne la ñun comme ay cobaye lañu suñu région yi. enseignants yu bees yi suñuy doog a génn ñëw fii suñu paree dem mais loolu am na ay jéego yu ñu ci def. ak ay jafe-jafe. mais le problème de fond c'est que réforme yooyu soo koy def parce que amul réforme bu mën a def di gouverner te du am et des bénéficiaires de la réforme et des perdants de la réforme xam nga amul. Mm-hmm. il faut que sooy décider moom il faut que mu am ñu siy gagner il faut que mu am ñu ciy perdre d'accord mais euh, l'action publique. c'est de maximiser le bonheur pour le maximum de personnes. voilà j'aimerais j'aimerais ñu dugg nag ci wàllu politique. waaw waaw ah, parce que parce man nag. politique moom. Mhm. defe naa ne suñu duñ fi nekk naan kii bi ñu ko sànnee xeer kii parce que mhm. loolu. Mhm. vraiment parce que lii dafa am solo. parce que ñoo ñuy jàng foofu dañoo bëgg ay jàngalekat yu baax. te li koy indi mooy système ni ñuy affecté enseignants yi Sénégal. war nañ cee waxtaanaat. te jamono yoolee bi ñu defee benn daje par ñoom ak ñoom daje yi ñuy def. àll talaata bu nekk. Mm-hmm. bu jiitu ci weer bi. Mm-hmm. posé naa problème boobu nee naa leen. comme c'est une réforme qui touche aux intérêts des enseignants. Mm-hmm. seen ak yi ñu am dans l'affectation nañ ci toog waxtaan. mais suñ ciy waxtaan buñ ci toog rek ak jàngalekat yi. nañ ci toog tamit ak parents d'élèves yi. yi nga xam ne dañuy jóge Sédhiou di ma wax ne ñoom du ñu am ay jàngalekat yu baax. pour ñu seet intérêt enseignants yi ak intérêt élèves yi. nan lañ koy concilier. ba nga xam ne ñoom tamit danañ am ay jàngalekat yu baax. parce que soo ko seetee. daal am na différence de niveau qualité. Mhm. te loolu responsabilité état la. Mhm. mu protéger ñi nga xam ne mënuñoo wax. Mhm. ça c'est la responsabilité de l'État. application bi dafa am solo parce que da ngay gis euh, benn couple boo xam ni ñoom ñaar ñëpp dañuy jàngale. kii ñu affecté ko Tambacounda. kii ñu affecté ko mu nekk euh, Saint-Louis. jëkkër ak jabar yooyu di leen toog ay at. ba dinañ toog un an yoo xam ne benn yoon wala ñaar yoon la ñuy gisante. Mhm. est-ce que mënuñu teg benn politique boo xam ne fa ñu affecté jëkkër ja. jariñ ñuy mën di gisee. <laughs> parce am na ci ay pro ñoo xam ne seen problème. seen seen sëy yi ah. mais am na système bu rapprochement familial buy am waaw am na am de rapprochement familial. Mhm. voilà buy am. Mhm. monsieur ministre Pape Cheikh ma baal rek tuuti rek. <laughs> grève yi bëggoon naa ñëw ci ci ci ci curriculum de l' éducation de base ak coppite yi nga xamante ni si am na ci yu ci mel ne nee nañ léegi dictée amatul dañ lay jox benn texte truffé de faute ñu ne la waral faute yi ñun ah, dictée bi ñu xamoon léegi ah, daanaka dindi nañ ko loolu xëy na mënuñu cee mënuñu cee wax mais ah. Pape Cheikh ñu ñu ñu bëggoon nañ wax tamit ci allemand bi nga xam ne pour promouvoir les sciences dañ ko dindi woon di indiwaat ko loolu yëpp mënuñu cee wax garaawul <laughs> mais nañu wax nañu wax nañu wax ci ci ci ci ci grève yi ndax chaque jour ñu dégg non respect du protocole protocole d'accord signé un tout le temps le même problème. Hmm. qu'est-ce qui se passe chaque année hein. qu'est-ce qui ne va depuis février 2014 où est mais xam nga léegi ren ji quand même on du bois. yàlla mi ngi ñuy dimbali. waaw hmm. nga xamee ne daaw am nañu at mu métti. ci vacances ñu toog waxtaan. Hmm. ñu ne talaata bu jot. jiitu ci weer bi danañu toog waxtaan. te wax jooju ñu ngi wàccoog moom ba léegi. amul benn talaata boo xam ne bii. début du mois toog nañu toog ñu waxtaan. di ngeen dem au fond des li nga xam ne waaw au fond des choses te li man li ma bëgg lii sama yéene mooy jàngalekat yi gis su at mi jeexee que li nga xam ne suñu grève woon xëj na mën nañ ko cee am ci waxtaan bi mën nañoo am lu ëpp loolu. Mm-hmm. loolu mooy sama défi bu may liggéey ak ñoom ci loolu. waaw man euh, dañu bàyyi éducation ñu xaw laal tuuti ci wàllum politique. waaw euh, euh, nekk nga lu yàgg da nga nekkoon nga ay député assemblée nationale nekkoon nga tamit directeur de campagne. bu Ousmane Tanor Dieng. Mhm. Euh, defe naa ne parti socialiste et vous c'est une longue histoire d'amour euh, man li ma bëggoon xam tey ni parti socialiste tëddee. Mhm. ak te ñu xam ne yàgg xam ne euh, PS parti bu mag la woon. Oh. am ñuy wax ne faw Ousmane Tanor Dieng dem ndaw ñi. jëlaat secrétariat général bi mhm. Khalifa Sall tey nekk ci kaso gi Aïssata Tall Sall jaar fee jël tey benn mouvement pour dem moom kese si si si élection yi mm. euh, mu mel na parti Léopold Sédar Senghor bi ak lépp lu mu doon euh, wane comme euh, comme comme image tey loolu yëpp dafa na sax mm. léegi tey ma bëggoon xam yow tey lan mooy sa gis-gis ci parti socialiste ak lan mooy sa xalaat ak bu doon sa sago tey parti Léopold Sédar Senghor boobu naka lay tëddee waaw li nga xam ne moom laa ci bëgg a wax mooy d'abord gis nga question boobu kenn du ko régler par ay émotion non du émotion man dama la laaj rek. sa gis-gis non non tontu la saa mu nekk nii sénégalais yi moo tax may wax. kenn du ko régler par émotion. Mhm. parce que soo xamee histoire muy fii ci Sénégal muy feneen parti socialiste boobu ngay wax pour mu nekk parti socialiste ay éclatement la fusion depuis BDS aw ci UPS ba ñëw ci PS PDS pareil. ça c'est la vie politique de l'organisme organisme bu mën a doon ci journaliste yi sax da ngay gis kii nekkoon na wal Walfadjri jóge fa ñëw fii jóge fa dem TFM jóge fa dem fële ça c'est la vie ça c'est la vie. donc mooy dañu de. non non non du loolu yóbbuñu kenn kaso dem Walfadjri de. du loolu non non kenn yóbbuwul kenn kaso ndax da ngaa dem Walfadjri. Mhm. waaw kenn yóbbuwul kenn kaso ndax da ngaa changer parti amul. Mhm. léegi donc loolu c'est la vie. donc du ñu émouvoir parce que c'est la vie il faut mu am mais gënaluñu bien sûr parce que la politique addition la de soustraction gënaluñu mais soo demee nit ki ba ngeen gis ne que mënatu leen a ànd ku ci nekk da ngay jël sa destin amee mais parti socialiste bi nga xam ne moom lañ doon wax naan patrimoine historique la moom moo nekk mais en mille les Sénégalais on décidé que nekkatul moom ci nguur gi du woon parti socialiste bi nekkoon bi Senghor amoon ba ci Abdou Diouf nga xam ne ñoo yore woon nguur gi di gagné élection donc stratégie booy def pour jël nguur gi da koy teg ci loolu ci parti bi amul ñoo xam ne ñii dañoo bëgg parti socialiste di langaamu ci nit ak ñoo xam ne ñi dañoo bëgg parti socialiste dellu ci nguur ñun ñëpp li ñu bëgg mooy parti socialiste jëlaat nguur gi ci loolu lañuy liggéey si loolu la liggéey. mais kon du si anam yi de nu mu tëxee nu mu tëxalikoo nii. non du si anam yi la parti socialiste nar a jëlaat. non non déglu ma rek naam da nga naan naam yaa ngi naan euh, vie politique la organism la noonu la tëddee. waaw déglu ma la rek xam nga 2007 dem nañu élection ñi fi nekkoon ñoo ci dem bi ñu bëggoon a dem mooy jël nguur gi 2012 bi ñu demee élection pour jël nguur gi la moo tax ñu bëggoon a dem. léegi nag jël nguur gi ku ci nekk da nga am sa stratégie camarades yi nga xam ne xalaat nañu ne neneen leen jël pour jël nguur gi man respecté naa seen point de vue loolu taxul ma critiquer leen loolu taxul ba ngàññi leen respecté naa ko mais li nga xam ne man moom laa wax mooy benn anam rek lañu mbooloo mën a àndee benn anam rek la ñu ànd mën a àndee ci parti politique mooy soo leen waxtaanee d'accordu leen hmm. ñu seet lim bi gën a bari fi ñu jublu ñi ngay àndal soo leen defee nawle xalaata ne yow gënoo leen ci dara ni nga amee xel di réfléchir noonu la ñuy amee xel fi lim bi gën a bari an li ñuy wax majorité bi nga toog foofu. te loolu la ñu def. Mm-hmm. Mm-hmm. te loolu la ñu def parce que Tanor bi ngay wax ne bëgg nañ mu dem mais Tanor biñ koy fal 2014 congrès la médias yi ñu ngi toog noo mm-hmm. n'est-ce pas que dañoo organiser voté ci coordination yi. xalifa Sall mi ngeen di wax moom moo koy xëccoog Tanor jour boobu ci congrès bi podium bi moo toog jóg lii résultat yi daal di ne voté nañu. di à tombre de voix moom moo ko jël. mais là là vous parlez avec émotion par non mais moom moo ko liir je veux dire donc du du du du du kenn moo ne Tanor nañ ko fal. Mhm. mais tey tamit est-ce que jotul Sénégal ñu def alternative ñu def alternance générationnelle ndax ñu daanaka ba ñu juddoo ba tey ñun ñi nga ah, xam ne barki Démo Ndiaye la ñu juddu ah, tout le temps même nit yi la ñuy dégg tout le temps même tur yi la ñuy dégg tout le temps les mêmes actes la ñuy dégg ki jóge na parti bi parti bi nekk ah, na pouvoir ki bàyyi na ki dem na ko tëbale en fait benn benn cercle la boo xam ne fermé très très restreint ku ko bëgg a dugg duñ la bàyyi nga xëtt ko dugg ko mais il faut ñu bàyyi yi tamit ñu xëtt dugg ci biir xale yi ni ñu ciy xëccee dugg mooy su fekkee ne ñi ngi fal parce que li nga xam ne ñun moom lañuy def amul benn parti bu ko fiy def li gën a tuuti ci parti bi pàcc bi gën a tuuti mooy li ñuy wax comité mm-hmm. ñaar fukki nit ak juróom ba juróom fukki nit ñoo koy am ci village wala ci quartier suñ ko amee ñaar fukki nit ak juróom yooyu ba juróom fukki nit yi ñooy toog daal di fal seen secrétaire général comité mu yëkkati loxo ñu ne kii la ñuy fal ñu fal ko ay comité yu bari ñooy daje former li ñuy wax section. section mën naa nekk ci quartier bu mag wala mën naa nekk ci dëkk wala ci commune en général. ñooñu su ñu bëgg a fal comité bu nekk ci limu carte bi nga jaay comité bu jaay juróom fukki carte par exemple su fekkee ne am nga fukki délégué comité bi jaay fanweeri carte xëj na moom juróom benni délégué lay am. délégué yooyu ñoo dem ci section bi ku nekk ne bëgg na. ñu fal secrétaire général bu section bi ñu koy def noonu ba ci coordination bi ba ci kaw su ñu yeggee secrétaire général mais loolu quand même gisu leen ko ci beneen parti waaye congrès congrès sans débat tamit non mais depuis de waaw la ah 96 ah, la ba tey PS la de non waaw la dañ ko doon wax 96 loolu histoire la sax du ma ci dugg te bien que ñi nekkoon ci congrès sans débat boobu di wax motion par acclamation tey jii ñooy wax débat interne ci biir parti bi man 96 nekku moon ci congrès boobu nekku moon ci parti bi ñi ko doon wax mhm. congrès sans débat boobu mhm. porté motion bi ñu koy voté Abdou Diouf ñëw par acclamation tey jii ñooy wax affaire démocratie ci parti parti bi en tout cas ñaxasoon na ba Sénégal di ko donc léegi mhm. ñu yëg ci kaw depuis 2007 suñuy fal secrétaire général dañuy wax kan moo bëgg ñu yóbbu ko ci militant yi ñu voté mais loolu la ñu mën a def mais militants yi ñoom ñooy seet ndax dañuy def alternance générationnelle wala defuñu ko mhm. du ñuy décréter mhm. Mhm. donc loolu la bëggoon a wax ñu xam réew mi est que parti politique ngi fi parce que mi ngi fi mi ngi amati fi parce que soo nee PS dan dan dañoo amoon ay ngëm-ngëm ay idéologie maanaam ay socialiste lañu nga ñi PDS ñu ne ay ay ay libéraux lañu ku ci nekk ak ak ak ak li nga xam ne moom nga gëmoon léegi xoolal xoolal parti yi ni mu demee mm-hmm. ay bennoo ay taxaw ay yooyu ngay dégg. soo so vote jotee dootoo gis parti socialiste ak drapeau bu vert beeg bu xonq bi. dootoo gis PDS ak bleu jaune bleu beeg mboq bi dootoo ko gisati léegi ay coalition donc seen parti yeeg idéologie ci amul yooyu dafa mel ni. ndax saa léegi pour pour finir démb Barthélémy Dias moom moo nekkoon invité quartier général moom ak ñamu àndal on nous a dit que euh, am na décision bu jóg nit nañ leen génne wala dàq leen ci. Euh, parti bi euh, lan ngay wax ci loolu très rapidement monsieur le ministre. non mais le xam nga wax naa ne. Euh, ay nit suñu àndee. dafa am fu ñuy teg seen ànd. parce que man Serigne Mbaye Thiam mënumaa nekk ne ci biir parti bi xaj na ñu fi nekk ñëpp maa leen ëpp xel wala maa leen ëppale dara. Mhm. ba nga xam ne même suñ jëlee décision. Mhm. man décision boobu liyeewuma loolu mënu la nekk. Mhm. il faut ñu am anam bu ñuy àndee. te kenn mënula la weddi ne. ni ñu dogalee ne dañuy ànd ak Benno Bokk Yaakaar ci élection yi. du dogal boo xam ne bii dafa aw yoon kenn mënu koo weddi kenn mënu koo weddi. waaye ñoom dañu ngi nagé kon. interroger coordinateur bi ñu bokk su boobaa nag suñ ko defee. mais mu ànd ak ñoom ñoo wane ne ànd ñoo parti bi. d' accord euh, dernière mais... question dernière question ndax seeti nga Khalifa Sall sa camarade de parti. non non seetiwuma ko. lu tax lu tax. seetiwuma ko parce que moi j'ai une position dans le gouvernement xam nga les actes compose pose dooy actes yu neutre soo nekkee ci gouvernement exécutif il un autre pouvoir qui est et soo ko waxee tamit parce que nit ku nekk tolof tolof yi dal ci àddina lu dem kaso rek de am na leneen lu la mën a dal ci àddina ci sa njaboot wala ci sa waajur wala ci leneen nit ñi da ngeen di séq leen li pour que yenn su amee tamit nga taxaw ci mhm. mais dafa am taxawaay boo xam ne bii dañ koy taxaw te ci man ci loolu Euh, euh, demuma fa. voilà bu doon suñu sago dañuy continuer ak monsieur le ministre 2h14 du matin. ay <laughs> euh, xam nga lu ma yéen am na lu ngeen bëgg yéen waa PS. wala ñun waa PS sax. sama xeetu sama la. PS la <laughs> woo. <laughs> léegi li ma si jaaxal mooy. léegi président Macky xam nga arab yi dañuy wax ne sammin kalbaka la yaa ukuluka mhm. du fanal sa xaj mu lekk la. Mhm. ndax leen yéen léegi siège Macky boobu yéen moom ngeen visé. te moom léegi mu ngi leen jël yéen ñii teg leen ci wetam wóolu leen lool def leen lépp. Mhm. te yéen toujours da ngeen di wax ni yéen da ngeen a bëgg ëllëg jëlaat pouvoir boobu. kon waaw. kon léegi nag yéen moom moom moom moom président euh, mhm. APR ñoom. Mhm. ah kon yéen lan lañ ngeen mën a wóoloo te yéen li mu yor ngeen bëgg ba pare yéen ngeen nekk foofu Seyda tamit li ñuy ànd bi ñu ànd ak moom ànd bi ñu ànd ak moom àndu àndu gor ànd ak moom ànd bi ñu ak moom oui non non dafay li mu wax am na solo am na solo xam nga loolu xam nga loolu nit ku nekk nit ku nekk damay wax dara waaw parti politique ñett moo mën a am mhm. nga sos parti politique bi jëlagoo nguur gi li nga bëgg mooy conquérir le pouvoir. jël nguur gi nga yore parti politique nekk ci nguur li nga bëgg mooy toog ci nguur gi lu mu gën a yàggee. nga yore parti politique perte nguur gi li nga bëgg mooy dellu siwaat ci nguur mm-hmm. loolu ñu wax ko ak ñàkk ko wax mm-hmm. c'est ça qui existe mm-hmm. léegi nag ku ci nekk da ngay seet quel est le meilleur moment pour nga reconquérir le pouvoir kon daal yéen da ngeen di yeeru. dañuy yoot <laughs> dañuy yoot du léegi balaa ñuy ñëw ci mot de la fin balaa ñuy ñëw ci kàddu yi balaa balaa ñuy ñëw ci. ce qu'on veut c'est reconquérir le pouvoir. bon le moment qui sera opportun pour le faire. voilà balaa ñuy ñëw balaa ñuy ñëw ci kàddu yi mujj yi parce que euh, euh, émission bi defe naa jeex na depuis cinq ans. Euh, mais heureusement ba cinq balaa ñuy tàmbali programme dafa sàcc ci ñun presque une heure de temps donc voilà ah, dinañ ñu baal deux heures du matin bi ñu tëj tey quartier général. même si euh, yenn ci sujet yu ñu préparer woon malheureusement euh, du ñu ko mën a euh, jàllale parce que ni ma xiifee noonu la faama tuur xiifee njaay pire itam mu gi nii la def mais bon kenn mënu ci dara ci aléa yi la bokk Mapenda Seck ñu ngi lay gërëm bu baax balaa nga ñuy woyal pour tëj tey émission bi ñu bàyyi la nga tontu internet yi nga xamante ni sànq rek ñu ngi doon laaj lu tax ñuy gëj di la dégg xanaa dafa am lu rëy looy wàcc man wóor na ma ni li ngay wàcc rëy na pour sénégalais yi Euh, après euh, koor gi muy question boo xamante ni mu ngi jóge euh, ci Samba Ndiaye looy wax say soppe ak sénégalais yi nga xamante ni ñooy bëgg dina dégg fu ñu toll. waa Pape. Hmm. damay tontu ci premier question bi. Uh-huh. muy ki laajte ne que ndax famille Faramareen est-ce que dinañu mos def benn album ensemble. Mm-hmm. donc loolu la laaj. loolu la laaj donc loolu euh, mm. moom bëgg nañ ko incha allah parce que mm. aussi euh, comme c'est une famille. Mm-hmm. ñu ngi ci waxtaan maa ngi ci waxtaan ak grand bi Thione. Mhm, mhm. parce que moom actuellement ni mi ngi def euh, ay album yu mu a génne. très bien donc euh, su paree incha allah. Mhm. dinañ jublu ci loolu def benn euh, kii ak parce que tey comme c'est une famille. te ay papa ki doom. léegi papa yi <laughs> bon c'est ànd ak doom yi ànd ak doom yi <laughs> donc on va le faire incha allah. bon bi ci topp mooy. Euh, pour que amay toog lu yàgg kenn du ma gis ci soirée yi lu bari. Mm-hmm. man euh, dama masam benn objectif dama bi mm-hmm. mooy que euh, bugg naa ko ah. que dañ may woo di ma ko demander. mais man aussi dama nekk loo xam ne lii man yàkkamtiwuma dara quoi. parce Euh, man aw ma beneen métier bu dul way mhm. donc euh, je n'ai que ma voix mhm. et c'est la musique qui me nourrit mhm. donc su ma sañoon damay jouer chaque jour chaque jour mais aussi su may joué aussi bëgg naa ko teg ci yoon. waaw mu jekk mu doon loo xam ne lii day day tegu ci yoon. parce que jouer pour jouer rek. bon je préfère ma toog sama kër. naan sama taay am sama tranquillité waaw parce que boo jëlee ay musiciens war nga leen a fay. war nga leen a jox seen ak yelef mhm, mhm. donc euh, si sa se prépare bien mhm. c'est bon si c'est pas bien préparé je préfère ma toog suma kër am suma jàmm naan suma taay lekk suma voilà li tubaab bi naan reculer pour mieux sauter ah man li tubaab bi naan reculer pour mieux sauter waaw très bien mi ngi noonu monsieur le ministre xam nga Pape Penda Seck si si bien sûr uh-huh. il le connaît pas yow tamit euh, ndax yaa ngi déglu musique pas tellement. d'accord actuellement vraiment pas tellement. d'accord et puis bi ma nekkee ministère de l'éducation nationale ba léegi. Mhm. pratiquement dootuma déglu rajo. ndax doo am jot bi. non non du jot bi sax. je ne veux pas être influencé par ce que ah. je fais. c'est comme bokk de juges ki te disent que suñu amee benn affaire ils n'essayent même pas de ne pas suivre les pour ne pas être influencé j'essaye de de de de ne pas être influencé quelquefois nag y a des bon on vient me parler de certains dossiers du ma autiste quoi bañ a déglu uh-huh. mais su affaire bi tàngee da ngay xalaat rek li nga def ne yow sa aqlaayu taala yaa ngi liggéey pour sa réew xalaat nga lii moo gën mm-hmm. après nag nga évaluer beneen bi ma ci yokk rek mm-hmm. mooy que ne sànq euh, docteur Habib si wax na ko mm-hmm. xam nga xale yi bi ma leen recevoir yi jox leen un million jox kii six cent mille lu nekk rek wax nañ ko. Mhm. réseaux sociaux yi lu nekk lii de gàcce la ku ku xaw ma def lii dañ lay jox ay millions ñii ñu leen di jox lii yees dessus mhm. heureusement que docteur Abis sa wax na ko mhm. mais man maa jël sama alalu bopp jox leen. loo xam ne li maa moom sama bopp. Ah, mais nit ki kay li mu war a wax. mooy man presque sama salaire. mensuel li may am par weer. <laughs> peut-être 40 pour cent yi wala 35 pour cent yi laa jël jox leen. ah balaa ngay critiquer kay yow na nga natt sa bopp ndax yow mi am cent mille 100000 ndax jël nga 35000 joxe balaa ngay critiquer keneen ki. ma ne leen lii ma ne leen lii nëgëndiku la nëgëndiku la man maa leen ko jox nëgëndiku la. Mhm. président en général. koo xam ne kii jël nga raaye bu mag. moom moo leen recevoir jox la. Mhm. même su fekkoon ne man ministère bi. am na budget cinquante million pour jox leen ko. du ma leen ko jox dañ koy cërale président mu recevoir leen jox leen ko. donc loolu nañ ko xaar te li ñu doon xaar mooy fukki fan ak juróom yooyu ma leen di wax ñuy jébbal projet de loi bi président nga xam ne communauté bi yëpp danañ fa toog. boobu lañ doon bëgg a xaar. mais même basketteur yeeg ñeneen su ñu amee. du teew mi teew la leen président di recevoir lu ñuy programmer audience la donc damaa bëgg pour nit ñi tey ak nit ki su ñuy wax dara ñu maandu ci li ñuy wax. internet bi léegi de comme tout léegi ma li wax dafa am solo ñu wax ko parce que dafa am fu mu yeggoon dafa am fu mu yeggoon mel ni que ne dañuy xeex diine nit ñi ñoo ñu bëgg gën a bëgg alxuraan sànq laaj nga ma dema suma su ba pare laay def xëy mhm. na bëgguma ci woon a yegg mhm. mais dinaa ci yegg parce que kii am na lu mu ci wax. bi ma yaree sama doom. dañ daan dem vacance ma dem Tilène gi jënd mer gàddu. jox leen ñu téye dem daara di fa jàng pendant deux mois ñu dugg fa di jàng. tey soo demee sama kër mi Mouhamed Moujtaba bi keroog bi mu ko recevoir ba jox ko récompense. dama wax docteur Habib Sy ne ko weeru koor bu jot. ajjuma bii passé lañ ko démarré bi ñuy um. weeru koor bu jot sama kër. kaamil bi la ñuy naafila dañ koy commencé baqara alif lam mim zaalikal kitaab wàcc ba naas balaa ñu def leen dootul xadam ma ne ko bëggoon naa xale bi koy la mu ñëw toog ci kii ak wetam parce que sooy laa alxuraan yenn saa yi da nga gàgg il faut que mu am gàgg il foog mu am ku nekk sa ginnaaw la gàggante ma ne ko bëgg naa mu ñëw toog mm-hmm. donc nit ñi da ngay gis nit ki muy dem nii rek pour bàkkaar ci moom di ko dëkkal fu mu dëkkal nga xam ne que ne affaire u diine moom ci biir nit ki la waaw affaire diine c'est pas le rituel seulement di di sëgg ka siggi c'est intérieur waaw voilà yal la yàlla fay amiin ngi lay gërëm bu baax monsieur le ministre yan kàddu ngay tëjee euh, waxtaan bi tey non maa ngi leen di këram parce que lii dafa am solo. li ma ci mhm. jublu woon. Mhm. yàlla bi ma tiim xam na ne li ma gënaloon. Mhm. mooy ñuy wax ci litteel Sénégal yi. mbirum développement parce que dafa manqué suñu réew. nit ki su toogee ñu koy bañ a laaj rek parti bi fii bi da ngay àndal. mais laaj ko tamit yow soo yore woon réew mi économie bi noo koy defee yow soo yore woon réew mi jàng mi noo koy defee yow soo yore woon réew mi wér-gu-yaram noo koy defee loolu moo manqué émission mu dem ba ci fin bi ay nit ñoo xam ne ñi fi mu nekk nii ñi ngi xalaat jox leen réew mi da ngeen di dégg ñu naan diw de peut-être candidat la président est présidentiel ma soo ko dégg mu wax ci économie bi lii ci xalaat pour développer ko. ma soo ko dégg mu wax politique de santé li laa xalaat pour développer ko. ma soo ko dégg mu wax politique agricole lii laa xalaat pour développer ko loolu nag fekk ñu koy def du ñu dem fenn moo tax ñun tamit yéen tamit am ngeen ci benn role mhm. nit ki su suñuy yaakaar ne war naa am réew mi mhm. war nañ koo laaj ne ko soo ko yoree. Macky Sall li mu yore ci agriculture bi la moo ci baaxul. loo ciy def pour nit ñi am choix. moo taxoon ma kontaan ci émission bi parce que ñun. li li nga xam ne daal mooy suñu bëgg-bëgg nit ku nekk nag da am ay manqué manqué. nit ku nekk dara mënu la mat. dara mënu la mat il faut li ñuy def la ay manqué manqué. mais daal daf ma óor ne li nga xam ne moom lañ ci yéene. mooy jariñ suñu réew liggéey pour suñu réew. incha léegi nag mën nañ cee am ay juum. donc dañoo kontaan tey jii pour ñëw. pour wax li nga xam ne moom la ñuy xalaat. ci yenn mbir yi. Mhm. ñi ngi ouvert tamit képp koo xam ne kii xalaat nga li ñuy def am na lu ci baaxul. Mhm. nga binduñu leef ne ñu lii baaxul. voilà moo tax ñun itam xam ni sénégalais yi dañoo fonk lool émission bile di quartier général moo tax ñu fi recevoir kilifa yëpp euh, place bii nga toog euh, euh, ku ne xaj na fi waaye ñu nit du ñu génn wàcc benn yoon yoon wi nga xamante ni ci la ñu nekk mooy wan ni askan wee ñu fi teg moo tax ñuy jéem rek te dañuy jéem rek a ah, te loole ñu ngi la ci gërëm bu baax ci ni nga nangoo ñëw tey ñu doon jéem rek waxtaane njàng meeg njàngale mi ci réew mi ngërëm ñeel itam Seyda Fat Bintou Diop tey nañ la ba waxtu wi ñu ngi ciy jéggalu bu baax ndax ëllëg euh, war nga gunge itam euh, téléspectateurs yi ci euh, bëccëg bi ci waree wareefu Ramadan ñu bàyyi la yow itam nga jébbal kàddu yu mujj yi tey ci guddi gi ci quartier général. waaw tey moom euh, macha allahu taala li ma si def mooy dama kontaan. Mm-hmm. ndax yàlla laa koy seedeel. Mm-hmm. Euh, keroog bi ngeen kiyee dama dama ko seetaan ba bër dama leen di seetaan ba bër sët du ma nelaw. Mm-hmm. musuma ko bañ seetaan. Euh, ma ma amoon daaw ngànt. keroog ndey saan ba nga xam ne macha allah ajaa déggéen mhm. bi ñu waree mujjee tase fii mënuma woon ñëw wax na ko sax ndax boobu ndeysaan dama doon yendu damay yendu si ay conférence mhm. fi mu nekk weeru koor bi mhm. 24 heures sur 24 amul benn jour boo xam ne du su ma jógee wareef. damay dem defi benn conférence. gis nga suba après demain maa ngi jëm ba Saint-Louis war naa dem tuubaa war naa dem ci région yi léegi nag bu ma demee foofu nag ñëwaat wala du ma ñëwaat mooy tax quartier général bi daaw mënu ma woon a ñëw dafa may metti mais yéen fii laa leen def. ndax euh, ñun sama njaboot ñoo fi nekk ndax Adja Dégéen dafa am lu cher lu ma fi bàyyeel moo doon seen yaay mhm. xam naa mënuma fees place am mhm. waaye nag am naa yéene. Mhm. képp ku mu téye woon. Mhm. ma téye la rawatina yow. dinaa la téye ba bés bu ma ko fekki jee. Mhm. mu ne ma njaboot gi fu ma fu ma leen bàyyi woon. ma ne ko nii laa leen téye woon. te loolu laa yéene te loolu mooy sama rôle. parce que man bi may am 17 ans laa commencé dégg yaay. même sama rakk yi ma bokkal yaay yëpp ak papa. maman lañ may woowe yàlla moo ma def ndey. yéen nag defu leen ma ko sax. ndax bés bu nekk ma dégg ngeen ne seen yaay dina amatu leen beneen yaay. mii maay seen yaay te maa ko moom laa dul nangu moom mu nekk papa ji waaw Kouthia moom nee moom kenn bëgg moom man maay yaay ji <laughs> moom bañ na sax te itam jël naa ko ma leen di wax ne su ngeen ma gisulee rek mm-hmm. xam leen ne man dafa mel ni euh, TFM GFM dafa mel ni maa ko. wallaay yaay suñu yaay yaay su ma sax du ma tëdd su amee benn affaire bu may déglu sax mu xaw a paan. Mhm. dinaa woo ku nekk. Mhm. ne la jàpp télé bi lu xew nangam nangam. Mhm. dafa mel ni Youssou Ndour mi nga moom man maa ko gën a bëgg télé bi dégg ngeen doon na wax ne Youssou Ndour dafa am euh, Seyda Youssou Ndour dafa xamul rek mais bu xamoon jarul mu ñuy fay. ndax ñun ñoo ko gën a bëgg télé bi ñun bu ñu fayu leen ñu liggéey si. wallaahi wallaahi azim yéen boobu lañ ci am. ñu dee wax ne ñoo ngi yéen à 100 pour cent ngeen jëf Pape mention spéciale ak jaboot bi nga nekk monsieur le ministre kontaan nañu macha allahu taala gis nga tey ndogu wuñu mm-hmm. taajuma ndogu te itam ñu xam ne nag lu liggéey bi bëri bëri mm-hmm. koor gi dañuy war a taaj ndogu te dañoo war a togg xëdd yu tàng mm-hmm. kon nag euh, affaire baa ngi noonu daal di amul ku leen toggal xëdd nag waaw yal na leen ko yàlla may ah leen ko yàlla may góorgóorlu ah yàlla may leen ko mais Ndiaye Piré euh, Ndiaye nag euh, tey moom bëgg naa nga nga nga tëj émission bi waaw euh, Pape Cheikh comprendre naa la parce que. lu duuf ci nag lu yëpp. xajatu ci cin li te it euh, yéene bi gars yi am dafa bari. Uh-huh. xanaa di gën a dénkaat rek monsieur le ministre. Uh-huh. ndax parfois da ngay romb ci tali bi. Uh-huh. ci village yi. ci tali bi rek lañ lay gis. Ah. surtout élèves yi et eh, yow diwa ngi nii ngi nii mhm. du ñàkk parfois muy jël ci artistes et yi mhm. di leen yebal ci certains écoles yi ndax ku mhm. jàng atam lëm du ñàkk nga am benn bés boo xam ne di nga ko reetaan bégee ko waaw du di la ko xaw a dolli tuuti rek ngay jël ci gars yi di leen yebal yenn saay ah xanaa di kontaan rek it eh, eh, ba beneen yoon incha allah looy def ah xanaa rek ah? boo demee ci école yi loo loo fay def. ah kafa ak ñoom waxtaan ak ñoom bëggal leen. reetaan ak ñoom. Ah? mais may wan dara kay. looy def comme ça ma sawar ci la yóbbu la dara looy def ak ñoom ci yóbbu su may dem. waaw xam nga parfois. Ah? di nga dem mën nga leen a lébal. Ah? parce que vous savez euh, monsieur le ministre man mii rek def naa 17 fois CM2. waaye nag euh, bi ma defee 17 fois CM2 bi ma demee université leen moom ma fa dàqee. tëdd naa fi di nelaw. Mm-hmm. jékki-jékki rek gis sama bopp ci mbedd mi. Mm-hmm. te li ma yóbbu ci mbedd mi ndekete yoo ay yoo la. élèves yi dinañ la yooxoo <laughs> élèves yi dinañ la yooxoo. <laughs> dafa am yoo non dañ leen dinañ leen wëyal <laughs> kaf ak ñoom euh, comme ni ñu koy defee ci télé bi rek. Mm-hmm. waaw ànd ak mm-hmm. parfois yenn saa yi ma ànd ak doyen. Mm-hmm. dem ci école weeru. doyen ninu ninu ninu mu ñëw toj wax nga xamante ni nii. doyen ninu waaw. Ndiaye Ndiaye doyen ninu. waaw comme na nga koy jàppee ci rajo bi rek. mais nag ma loo xam ne lii daal jar na ma yóbbu la ci. vraiment vraiment kon ci King rajo bi kon voilà. waragoo loo xam ne lii daal waaw. loo xam ne lii daal soo ko wayee élèves yi bind ne ma monsieur le ministre kii moom il faut nga indi ko suñu école. waaw xam nga mën ngaa dem ci école. waaw. daan na leen gone ma <laughs> ko def naa waaw ñun xam nañ ko xam nañ ko waaye mosuñu koo gis. mooy maire boobu naan lay lay la laa bu ko njur sàmba. eero <laughs> bu njur am loo xaboon wóoreere ay. quartier général toj na réew mi yéen da jàmbaar ngeen waaw waaw. defe nday lay lay bu ko ñëw na yooyu da ci am. yeneen Youssou piis xale yi Youssou Ndour. Youssou Youssou dem dem dem fan. <laughs> ku fi gis samay nag ku fi gis samay bëy suuf si ñaaw a ñëw. garab yi <laughs> merci. na solo. mu ne. nee na ma yóbbu ko Tiwaawan rek. quand même. ñu tëjee ko. Mm. ñaanal ko gaa yi. Mm. koñ danaan yaa man ala kulla shay'in. yaa man ala kulla shay'in. yaa على كل شيخ يا من على كل شيخ